thank you ciy jéglu di wax ko loolu ah man Aziz moo ma dugal si projet su ma ko fekk. gerte jawee nag mbojee bu fa papa xam nga ni mënoo ñaaw Baye Souleymane Jawee sa baay eh Aziz yow Bara jom jadi bijak, ada salah jom jadi bijak. Menyita kena comité Kër Massar mais nekk artiste nekk suñu biir donc Doudou ñoo ngi lay gërëm di la sant donc euh, ñu commencé waxtaan bi maa ngi ñaanal ñëpp jàmm di dalal ñëpp ci jàmm di wax ne nag tey dañu fekk ci comité Ndiougène donc bu nee comité Ndiougène mooy euh, Pape Gallo Ndiog mooy président bi donc euh, moom moo war a jël parole ci comité Ndiougène Ndeye Kumba Ngom représenté jigéen ñi Ousseynou Diop mooy wax ci turu góor ñi ak Pape Alioune Diop mooy wax ci turu sage donc di ñaanal ñëpp jàmm di gërëm ñëpp ci seen teewaay xanaa di leen présenté délégation bi Aziz Diaw àndal donc ci euh, sama côté bi donc yu Bara Fall Ousseynou Kayta moo toog moo sol tapis ki Ousseynou Tall euh, Nene Mamadou Nene Faye donc kii mooy Aziz Diaw donc mooy sunu secrétaire général donc euh, mooy tey lu waral bis mu ñëw ànd ak ñun pour wane ni moom moo jiite comité yi dafay am ñetti taxawaay yu muy dafa nekk coordonnateur de comité nekk président comité nekk secrétaire général mooy SN national donc loolu moo tax tey mu ñëw fii teew fii pour waxtaan ak yéen. si suñu doxalin ak suñu suñu ay programme bon kii toog si wetam mooy Youssou Fall jigéenam tudd Mati Ndoye ki si topp tudd délégation bi nga xam ne ñoom ñoo gunge Aziz léegi si sama boor bi ñiy toog fii ay président comité la kii moo représenté Aziz bi nga xam ne tey moo ko toogal fii kii di suma rak Mbaye Ndiare man président comité la jëppal moom moo ma fi représenté Bokar moo fi représenté comité étudiant yi Oumaymatou Sène moo représenté comité ci set Thiénène donc euh, suma jigéen Siga Ndour moo fi représenté Malaado Yàgg donc ñi toogee nii ñëpp ay responsable comité lañu ñi toogee nii ñëpp ay invité lañu di kii tamit di As Dia ci responsable mais xëy na fee moo tax ñu tege ki nii mais ñu bu Pape Gora Diop waxee ba pare mu ñaan ndax commencement boo loo gis rek ñaan def si baax bu luy tëj aussi paa bi ñaanal donc loolu daal mooy programme bi nga xam ni bu Pape Gora Diop dalalee ñii ba pare en tant que président balaa ñuy commencé kenn di wax góor gi lañuy jox mu commencé ñaan jërë ngeen jëf léegi maa ngi jox Pape Gora Diop donc mu ubbi waxtaan Pape fàttali avant les élections yu passé moom Moustapha Cissé daf ñoo ci bureau ñu nag bureau bi yëpp bi ñu ñëwee daf ma dénk Aziz daf ne xale la mais naa ko li ma ko jox ñeme naa ko ko jox te xam naa ne nit dina ko doxal wax jooju bi mu ko waxee ba léegi tamit amul lenn lu ko dindi kon ñun dañuy jàpp ne li mu waxoon ba léegi rek moo nekk kon le travail continue waaw ba xam nag fu wan lu mu jëkki gëtëm euh, di euh, ndokkale aussi président cellule bi fi ñëw yëpp tey mooy première coordination jot amul mais ku nekk bis bi am nu mu toll ci yow ba nga bàyyi sa soxla yëpp ñëw euh, mbokk yi fi ñëw yëpp nag aussi euh, lu baax rek am ko lu baax am yàgg bokk ak ñoom moo tax bi leen a wooyee ci bis bi sonn ci nga leen ko wax ne nii lay demee ku nekk soxla bi nga amoon tamit nga bàyyi ko daal di merci bu baax gis nañ seen taxawaay amoon ci suñu benn nit boo xam ne si la nekkoon ak suñu doom muy Abdal Pape Abdallah Jaxate fii la nekkoon ci ñun yàlla def li ko soob ci membre bu bureau bi la bokk yàlla jëlee ko fi euh, yu mel nii si daan toll di si daan taxaw bu baax joxe ci énergie am yépp yàlla neex na ñu fekk nii mais du sunu njàmbaar kon nag ma ñaan rek mbooloo mi mu may ko lu muy du silence rek ndax jëmm jooju fi jóge ndax parce que ku dul fàttali aussi am loo xam ne day doy waar trop je mbumbaay am na boo génnoon fii léegi tëgg sabar ku la xamoo ku la xam yëpp ndax pendant les élections ndax dañ naa am fukki ñu topp ma voté la ma gën a téeméer ñu topp ma te kenn du ci voté amul sens kon sur ce plan là bu baax nekk ak say militant topp topp ak topp ba xam ndax ñun fa nu nekkoon nañ fa ba léegi wala jógee nañ ci koo bëgg dafa am loo xam ne da nga koy demal nit ki mën ngeen bañ a bokk gis-gis mais seeni xalaat bu fet un Makhtar Cissé wala un Abdou Aziz soxla wuñu dof ay nit lañ soxla parce que bu ma waxee ba koo mënoon toogal mën ko convaincre mais bu fekkee ne yow réunion tàccu yooxu bu ñu waxee nga man moom naa ñu dafa groupe bi bu xeex jotee yaay xeex bu saaga jotee yaay saaga yaa ci gën a matati dis dafa rëy lu fi nit ki mën a xalaat ci lu rafet dafa pare donc mënul limité wu rek ci saaga ndey wala nit ci ay idée yow fii nga yem rek pour ma dagg ko rek monsieur tey suuf dama lay saag wala ma tapas la dóor la pour wax ji yem fa sa niveau foofu la yem mais nit dimension war na weesu foofu nit la noo fii nag dama jàpp ne ay nit rek fi nekk kon nag yëfu nit rek lañ fiy def waxu ci lañ fiy wax nit yaa ngi ci yoon. bul teggi sa tànk continuer parce que am na ñu lay gunge te ñu lay gunge kenn ragaloo ci waaw lii ëllëg nag yàlla rek ko xam kenn xamul sa ëllëg mais nga am nga am nga sañ-sañ bëgg-bëgg bëgg-bëggal buy mokk bu am ne yàlla lay neex mu mën na mën nañ am yéene yéene boobu am ne c'est en compagnie gunge la muy guddi muy bëccëg. moom la wooyu wuyu la waxtaan ceeg yow waaw waxtaan ceeg yow kon nag maa ngi dalal mbokk yi di dalal gan yi naan leen bisimilah yéen a ngi seen kër parce fii boo koo fi xool rek boo ko seetee ñëpp ay mbokk la ñëpp benn la donc bëgg lu baax rek moo nu daje toog naa fi ay at yoo xam ne am na ñoo xam ne gis na lu yàgg moo tax bu mu ko jël yow parce que boo koy dégg muy wax da ngay yaakaar ne luy ngeen luy gile quoi mais mais mais nit nit soxla nu yaram wuy màgg xel muy màgg lañ soxla si nit nit da ngay sax sax xalaat ba saa yow nit ñi di déglu rek li di dégg ci yow am njëriñ ci nit ñi démb ko siiw léegi jour ñu invité si woon vice président Iba Xonde Ngom mi ngi la derrière nous mais tout le monde a apprécié ñëpp kontaan allah waaye lu nit ñi kontaan kontaan ci ci ci ci ci ci lu Iba répondre foofu euh, Pape Soumaré rek ko koy yombal ndax wax ju neex tontu bu neex day yomb kon nag ñoo ngi sant ñëpp ñu commencé woon loolu rek. ah comme tawaay bi ñu ko waxee woon loo gis dañ koy commencé si bisimilahi rahmaani rahim et eh, man dama doon ubbi juste pour dalal samay gan wax ne yéen a ngi seen kër. ndax bu ma seetee li fi président wax bu nu tasal sax dem na parce que def na synthèse bi yëpp allah li ñu tax a jóg ah wante nee nañu ñamba yàqul seer surtout kii yi àndee. macha allah moo tax ñu ngi si fas yéene di def tuuti rek kon ñu commencé ko ñaan incha allah ñun ñoom ñu def istighfar ñetti yoon def Faatiha salaatul Faatiha ayatul kursi yu Ixlaas wala Naas def aadi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy li ñu dugg si bismillahi rahmaani rahim génn si alhamdulilah rabbil ba lépp luñ si ni am na ko sañ na ko mën na ko te doy woo ko dara nag. am ko pour nun la parce que yéen a ngi fi incha allah. إياك نعبد اللهم صل على لا إله إلا أنت الذي يحشر من بعده يحشر لا يحشر سيد شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة قائما بالصلاة الأحوال لأنه مالك الملك وتؤتي الملك من تشاء من تشاء بيده إنك لا تشاء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 ko wax ji moom parce que li mu wax rek dafa doy sëkk lenn rek laay te mooy remercier sant gërëm am na ba am na jotaay yooyu xam ne bu ko fekkee da nga war a sant amul am nañu ko bëggoon fekkee te fekk wuñ wala boo bon nga fekkee taluñu ko mhm. yàlla njëkk na alhamdulilahi rabbil alamin ñu fekkee ko tal ko moo tax ñu def nii kon nag alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi ala kulli haal hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi alhamdulilah alladi qadam jadda bi aadamihi rahma kii ñoo lépp lu am moom kon nag si lépp lu mu amoon si dooleem jooju nag moom la ñu fas yéene ñaan ko ba li ñu bëgg noonu yëg ko suñu xol muy nux nuxi ba mënatuñ koo denc muy lakk suñu laaj ñu génne ko wax ko loolu la bëgg nag mu defal ko te mooy ndam si Abdoul Aziz du leneen de amul leneen nun du ñu sant Maxtaar du ñu sant Macky xam nga ko ni sant kii ndax yow yaa leen fi représenté bu la xoolee yow ñoom la ngay xoolee ci la yónni boo ñëwee martabaam ngay ñëwee kon nag yow la ñu xam yow la ñu miin yow la ñu wax yow la ñuy ñaanal da nga am turandoo nag sur le plan spirituel ñépp xam turandoo noonu mu siiwee nag yow yàlla mën na def yow sur le plan temporel sa bu siiwee noonu. allah. te ñaan rek am na. wallaahi macha allah. am nañ si yéene nag biir. yàlla ko yàlla mottali. Ah, ñun kenn xamaloon politique xam naa ko nu examen tax dañu naan noonu na bu ko wax xëy na bu doon daayira ma wax nekkul laa ko dañuy bañ woo ma si lii te nag saa ñu ma bañ xam nga lu tax mbokk. gis si dund ànd jokk mbokk ku àndul sa mbokk koo seeti ma nga ànd ak mbokkam kon nag jàpp suñu mbokk te ku ñu bokk maa ak nga xaar si maam Adama kon lu ñëpp bokk. Abdou Aziz li la lay yéene ñu yan naka yàlla def te incha yàlla mën na ko def incha allah li si des nag mooy ñoom ñu jeunes yi daal si islam amul contrainte déedéet ñaar ñi ñoo jiitu conviction action attention conviction dafa war a ànd boo demee ba gëm leen sa biir xol ba gëm ko ba yëg ko mënatoo ko kii boo ko génne boo ko boo ko bu génne te jëfee woo ko aussi c'est comme zéro. yéen dem leen ba yëg ni lii war na mën a am lii maanaam avantage yu Sénégal avantage yu Dagana avantage yu da ngay yëg ko mais te mooy lii mais nga xam te moo di deuxième conjugaison te mooy relation et réflexion ay nit ñu ànd bokkuñu jikko bokkuñu fu jógee la bu ko solal sama morom xam nga boobu léegi ñoo ngi wax am na ñuy toppee si gannaaw bi wax loolu du cër bu kay dafa ñëwee di wax ak yéen da ngeen di dëgg ak lu ngeen mën ci am rek ngeen ko war a bàyyi parce que ñi leen tax a dugg seen kër déplacé ba ñëw fii bu nekk amoon na war a def ñu wax ñu kenn xamul lu muy def euh, <laughs> am na la nga xam ne kenn ko def parce que boo ko defee rek tuuti te ki jaar na waaw kon na góorgóorlu leen li si def mooy troisième étape bi dafa garaaw te mooy autocritique ku nekk si yéen war na poser question ci suis waaw suñu carte d'identité dañ koy renouveler chaque dix ans noonu la dañu war a renouveler suñu suñu kii chaque à chaque instant war nañu ko renouveler n'est-ce pas. Mm-hmm. qui suis-je Alioune Diop. li may kat ban bi may ñëw amatul indi leen lii bu ñu tudd lan ma wax te incha allah bu may dem du ñu jaar sama tur indi leen néew bi la ñuy wax diggante boobu ñu abal ma fa Alioune Diop ma dem bu gëm Alioune Diop boobu maa ngi def erreur bi. Mm-hmm. bu mu la tax a dem bu mu la tax a rëy bu mu la tax a ngànd ngànd Aziz. bu topp mu nii jayaat yooyu bu si dugg mu nekk jullit piir al muslim piir looy def na yàlla rek tax buguloo si lenn buguloo si lenn bu ak bu kenn yaakaar ni daa leen dox lu mu mosul am wala dafa leen lu mu mosul def lépp lu fi def defit la lépp lu fi wax waxit la lu fi jox joxit la yal na yàlla jàppale ba loolu yëpp mën koo egg si incha allah. kii mbooloo mag bi war nañu delloo suñu xel ci yàlla ba yedd ni parce que ñun ay ndaw lañu dañuy jàpp ni xëy na xam nañu mais ñoom li ñu xam ñun xamuñu donc góor gi ñoo lay ñaanal yenn na yàlla may dëgër laay yàlla bàyyi suñu kanam mu ñu dungee ba si kanam kanam di gërëm ñëpp nag léegi nag waxtaan bi comme ni ko waxee rek dañuy yendu yendu bi metti na xëy na coono bi metti na li si gën a am solo ba am si solo rek mooy li Abdou Aziz mi war wax ñun ñëpp suñu wax am na solo trop buñ fi dajee rek ngir yàlla ak moom bakkanam moo tax donc waxam sax moo gën a am solo sama wax man donc may ñaan rek ñeneen ñi ñu war jox parole yëpp ku si mën a gàttal rek. maa ngi leen di nuyu Aziz maa ngi lay ak sa délégation di nuyu sama waa famille di parler di wax tamit au nom des femmes de la comité AGM Aziz Aziz moo leen foog nga wax en fait amuma wax c'est la première fois looloo daal mais ñi ñi ngi lay sant di la gërëm ndax euh, ñun ku mel ni man xaw ma politique su ma demee bay ñëw ay réunion mu ñëw ay politique yow yaa tax ñu tamit suñu waa xam ne tamit xam nga la mooy politique c'est la première looloo tax mais ñu daal ñu ngi sa ginnaaw ndax doy nañu si sa ay wax say jëf gis nañ ne tu es mon responsable looloo tax sinon duñ topp sa ginnaaw ji bu ñu woowee réunion yi dem ñu ñuy invité ñuy bàyyi suñu kër di ñëw fii nii. loolu moo tax ñu teew tey mais ñu ngi lay sant di dëggal may sant sax mais sama waa famille man ma wax ñu bàjjen suñuy gàtt rawatina dëkk mbay parce que am loo xamante boo ko defee si koñ boo woote lu wële xëy na si commencement boobu moo tax ma demee nii mais ñoo si sant bu baax a baax sinon ñu dul si Aziz parce que Aziz ñoo lay ziar yor sa wàccuwaay daa contentement bëri la dal ñu ngi wéyëpp ñu ngi àndal loolu ñu allah am na gannaaw yu bëri ma gisul góor gisuma ko de gisuma fi góor dafa nekk saa nii mais loolu saa lu bëri bëri ñun nag euh, AGM ànd jëpp mbokk danga fekk ñu nekk benn tur de famille bu mag ñu def li muy lor ànd gis ko fandoo def ndox nga ñëw fes ñu c'est pas droit lu ñu waxoon ne depuis si si ne nekk muy ma ne ay kàddu góor ñu ne àndoon dépassé ko depuis Padoa ba léegi rek tekkiwul na ko ñoo ngi si ba léegi mais lu la waxoon laa fa parce que euh, réunion bi parce que Aliou laay jotaat rek AJM nekkul ñëpp ay étudiants lañu ñu koy waxaat parce que xëy na waxoon naa la fa parce que ñu ko teggul woon am secrétaire d'information fi nekk am na xamante ne amul liggéey am na xam ne ñoo ngi liggéey wax amaat sax nekkul si bu baax ak côté la xamante ne dëgër na te boo xoolee yéen dëgg yéen a yéen trop loolu di dimbali nit ñi mais. da nga xaw accentué trop si kër étudiant yi di fay gars yi ñuy jàng mais nag bu leen tax dañu xam ne loolu yëpp dañoo war a bokk si fan ngeen bokk nag am nañ si yaakaar bu baax bu baax a baax a baax que gis nañ ñu ngay doxalee ñu ngay waxee keneen nag boo koy jàpp da ngay jàpp sa ay kàddoom ak si jëfam ñu lu waxoon yaa ngi si sa kàddu yi soppeekul te buñ amee nakar yow ngay gis bànneex yow ngay xam mais nag. bu ñu fàtte dara lu ko war a yëpp moom la Makhtar Cissé parce que bien avant si tànk yooyu nga taxee woon te jusqu'à présent ba léegi ñu ngi wax yow si tànk yooyu nga nekk kon nag ñu ba tey noonu si ginnaaw da nga wax appareil mu ngi fi yaa ko moom yaa ko liggéey ñu mun ko jëriñoo it te noonu lay déglu si yow la dépendre loo si wax rek ñu xool di xam baax na ànd na seen ànd seen yow bu kenn la jàll si morom bu la jàll yàlla kenn la loolu yëpp si kàddu yi baax daaw bi waa famille bi daaw kontaan nañu si lool ndax dafa naa ne yàggal ndax man maa ngi fàttali ko wax na benn at ma demoon gàmmu ma demoon gàmmu dafa naa ne am problème oto dafa naa ne man la moom ñoom la ma booleel pour ñi ñu bàyyi woon dara pour ñoom loolu leen indaale fii naa ne boobu dafa naa ne xaw na yàgg lool ndax affaire boobu dafa naa ne yàgg teggagul woon fii boobu affaire yi yàggagul woon sax ci ay comité yooyu dafa naa ne loolu yàgg na lool xam naa sax xam ndax lool ndax loolu ñëpp wane na si nekkaal bu rafet ak euh, kon jàpp bi kon yi daanaka yàgg na lool jiitu na tey kon tey soo leen taxee wax kàddu yi rafet yi yëpp dañ siy ànd ak yéen wane na tamit politique bi. boobu tamit gënoon na fi métti def naa ne ndax boobu def naa ne Aziz mii def naa ne étudiant mu doon taxawu parfois mu ci su moyen boobu cotiser wut ay biis léegi parfois du am sax lu nga mën moo tawee ñii am seen association wala dara waaye day ñëw buuxalee nit ñi xanaa ne loolu eh, xaw ma ndax ñii ñoom koy fàttali ko wala yooyu waaye xam naa lu yàgg la lool wax dëgg yàlla yàgg na lool lool waaw ñu bisi bi waaw loolu métti lool waaw loolu ñëpp nag tey dafa naan ne ànd bu rafet moo ko waral ba tey moom di ko taxaw di ko fàttaliku ba tey moom taxaw di ko fàttaliku waaw ndax euh, am na liggéey bu ñu xool ci affaire comité bi yomb na nag yomb na nag ndax euh, xaw na métti lool franchement ndax euh, ndugul ko dafa xaw yàgg ñu bëri tamit arrêt bi tax na ñu bëree xamatuñu woon lu xew kon soo bëggee di defaat liggéey bi tamit day xaw metti lool waaye léegi nag liggéey bi moo nekk nii présenté ko comité bi léegi nag am na yoo xamante ni def nañ ko def nañ ko nabu incha allah dana ko continuer di euh, ko di si di si yokk incha allahu taala ba keroog euh, muy sotti incha allah. waaw jërëjëf Mbaye ñoo ngi lay gërëm léegi may jox suma jigéen maa ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyu ñëpp ñu fi teew di nuyu waa comité ñu ngeen bi ñu dalal tey di leen gërëm di leen sant leen initiative bi rafet na yal ko yàlla mottali dina ànd bi gën rafet di wax rek naan comme li wax naan wax wax la wax na répété wax du bëri waxaw ma wax waxaat waaye lu waxoon rek dañuy waxaat di feddali suñu kóllëre rek si nu digganteeg Aziz lii ñu wax naan liggéey bi ñu doxal pour fii yi tamit ñoo ngi ci naan li paa bi wax tamit ñoo koy gërëm di ko sant ku àndul ak say mbokk rek ànd ak ay jàmm te ñun ñoo ngi seen ginnaaw tey ñoo ngi seen ginnaaw ëllëg di wax nag fiche bi remplissage bi ñoo ngi si lii liggéey daal dama paree bu waaye paree rek. <laughs> di gërëm ñëpp di sant ñëpp masalaam. jërëjëf soxna Oumay Matou moom nag nee na dafa mën a di leen jox seen wàccuwaay di nuyu la famille Diouf te adduna lu ñuy wax def lu baax rek ñu parce que maa ngi tourné seen Mariam Ndiaye nekk suñu jabar la waaw adduna lépp loo gis rek waaw ko jël yow ko yàlla te lu am ni moom la yàqinu taxaw fii tey c'est grâce à lui parce que ñun d'habitude ñun nous sommes des pour feeñ ci ay mbooloo sax c'est très tout à fait diis wax na ba sonn donc tey mbooloo tax ñu ne rek dina ko may loolu ngir suñu Dagana jëm kanam incha allah nuyu suñu grand acteur Asgak moom tamit tey lan nga xamante ni ko daan si nga tout le monde. di aussi di rappelé aussi comme ni ko gars yi waxee rek fiche yi ah seen fiche yi sont au nombre mais y a des marques am na ñi nga xam ne aussi sont adhérés mais si adhération am nga xam ne joxe nañu seen ay mais ñëpp ñu ngi si biir euh, mouvement bi aussi comme que aussi guddi na jarul ñuy répété di répété waat ñu ñaan yàlla te aussi aussi weer yi day des mois à avance parce que élection yi si des tax bu ko mu gën a góorgóorlu defar comité yi mu gën a def incha allah yàlla may lu ndaw bu soobee yàlla. <laughs> asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar euh, di kontaan ci teeru bi waaye nag ñu bëri dañoo fàtte teral bi bëri na neex na. macha allah tey dama añ rek mu fàtte li ma dagan. ceebu dagana tey laa lekk ñu ngi kontaan ci dal bi ak teral bi sama mag laa fi fekk si sama nijaay mooy jëkkëram muy euh, monsieur Ndiouk donc ñun famille yi xamante ne ñu daje bu yàgg. déjà ngay politique ak sa ay mbokk dafa neex foo dem euh, sa kër nga nekk euh, wax bi du gudd ñi kontaan ci liggéey bi ndax Mouhamadou Makhtar Cissé di ñu àndal ak moom di liggéey ba léegi euh, àndu nawle la wax te loolu la ñu fas yéene ànd moom élection yi nag ñi ngi ñëw comité ñu ngi di ñaan ñu gën a mobiliser maanaam moo waaye dafa am empêchement moo tax nag tey ma teewal ko moom aussi mi ngi def lu mën ñi ngi inscrire nit ñi euh, te nag lépp nag ñu ci ginnaaw Abdou Aziz di fas yéene liggéey ndax ñu Mouhamadou Makhtar Cissé la moom la ñuy te yàlla nañu yàlla may fi ñu jëm mu leeral ñu ndax ñu am ndam ci ginnaaw Abdou Aziz mu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp jërëjëf. bu ñu ko sama nijaay waxee comme que ñu war a gàttal kàddu yi rek donc dañuy gàttal kàddu yi xam naa jotuñu déggoo ne parce que dafa am lu souligné léegi. comme euh, représentant des étudiants parce que ñëwuma représentant des étudiants parce que boo waxee représentant des étudiants rek mais plutôt je suis venu au nom des étudiants révolutionnaires qui sont à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. lii ku mu dawul yaramam sa yaram di daw. Eh, lii ku mu dawul yaramam. boo gisee bu ngeen gisee lu tax ma ni gan maa ngi woon quoi juste dafa am lu ñu bëgg souligner su ngeen gisee lu tax ma ni étudiant révolutionnaire c' est vrai que ñun ñëpp ay doomaanu Dagana lañu nous sommes tous des étudiants nous sommes tous au même pied d'égalité donc ànd bi dafa war a rafet ñu war a nekk benn bopp mais dafa am lu tubaab lu tubaab bi naan le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas ñun ñëpp ay étudiants lañu mais principe yi bokkul idées yi bokkul. te am na seen ay responsable yoo xamante ne instant yi ñu ngi nax seen bopp parce que ñu jàpp ni ñu ngi defal étudiants yëpp mais defal ñu ñëpp parce que y a des étudiants qui sont concentrés à l'université parce que sànq bi ma nee Aziz damay ànd ak ñenn ñi def ma ni carrément il faut juste avec trois personnes raison pour laquelle j'ai choisi Sidi et un ressortissant daganois Mouhamadou Diallo il est du Fouta loolu moo tax ñu indi parce que amul seede baaxul il y a des étudiants qui sont à l'université actuellement c'est des mais lu ñu souffrir tey bu ma ko bëggoon énumérer fii nii du jeex problème logement ñii nga xamante ni seen situation demeewul noonu par contre un Bokar qui est à Dakar avec sa maman avec sa famille situation yi mënul bokk te gis nañu toog nañu à un certain moment ñun suñu wàllu biir demlante wuñu moo tax ñu jóg ak Siri ñu ni combat boobu duñ koy mëne nekk doomaanu Dagana nekk à l'université bi rombante de gauche à droite loolu dafa war a dakk te si te billaahi wallaahi bi ñu ma joxoon ay ay opportunité boobu dinaa fi indi des gens yi nga xamante ni muy góor ak jigéen si couloir yi liñ daan fanaan étant des étudiants Dagana alors que ñu ni am étudiants Dagana yi am nañu ay logement à Sicap Foire je sais pas je n'ai rien contre eux keroog Aziz doy na ma seede dama woo Aziz ay deux heures du matin ñu ngi waxtaan ma ne ah Aziz mes frères sont là à bëgg naa dem malgré que damay liggéey j'ai pas de temps mais dinaa organiser benn rencontre ci koor gi mu yëkkati xaalisam jox ma daf ma ne woon sax seet leen fu leen neex ma ñëw ñu organiser ngeen def seen rencontre organiser ndogu par la suite mu ne ma problème de temps day am bi ma ko organisé j'ai appelé quelques gars malgré que ñu bëri meroon nañ si parce que li fa nekk mënuñu ko jeexal tellement bloc la ils sont nombreux yi foofu yemul am na ñoo xamante ne aussi ñi ngi dund foofu lu metti je n'ai rien contre ARD parce que c'est des frères c'est des camarades de classe qui sont là mais ñoom dañoo am seen principe ñun aussi dañoo am seen ay suñu ay principe Aziz bu ma joxoon autorisation nga ñaari bus yoo xamante ni c'est des étudiants yoo xamante ni bokkuñu ak ñoom principe ils son à l'université merci beaucoup maa ngi gërëm ñëpp aussi merci nuyu ñëpp di gërëm la famille Diop di leen remercier kontaan nañu si béykat bi ñu def yëpp kontaan nañu si bi neex na lépp neex na macha allah maa ngi nuyu sama cousin yi Galo Diop di nuyu Pape Alioune Diop di ko parce que wax nañu wax bu rafet quoi léegi te boo xam ne jàngal nañu lu bari quoi ci politique parce que politique même bi ngay def dañu koy def si si diine parce que moom dama daal si bii ñu àndal. mais moom bi ñu bu ñu wooyee daf ñu ne man am nawle te nee na aussi moom politique bu ko jaral mu muy euh, dee di dem safara militant yi dem euh, euh, di dem àjjana nee loolu bu ko jaral ñun ñu ko donc lépp li finance rek agir rek nga ko teg ci dëgg di wax dëgg di def lépp pour loolu mooy objectif bi encore une fois di féliciter macha allah famille Diouf am nañu ay famille yëpp dafa tas ñi xamante ne donc lii c' est un exemple. parce que famille dafa jokkoo nit amul lu dul mbokkam donc ça c' est un exemple boo xam ni yeneen famille ak noonu yëpp dañ koo def donc euh, c' est quelque chose boobu c' est pas la première fois ma ñëw seen rencontre ñëw naa seen rencontre dans Yoff mooy fii bi ngeen dëkk HLM donc loolu aussi bon c' est c' est c' est une chose à saluer di remercier aussi man may Louga parce que financé nañ leen man maa yor as ma nga joxoon financement diaspora bi macha allah ñu ngi si defee remboursé nañu donc financement yi donc ñu ngi koy sant parce que bu ñëpp doon def na moom rek donc benn euh, comité doon problème parce que Mamadou Fara Seck bu ñu dee xaalis ñu séddale ko ñoom liggéey nañ ci remboursé waat ñu ngi leen sant si loolu lépp. donc encore une fois ñu ngi gërëm Mamadou Fara Cissé parce que man mosuma dugg ci politique dàgg na te su ma duggee politique tey Mamadou Fara Cissé moo tax donc Mamadou Fara Cissé boole nañu ak Aziz Aziz nekk nit koo xam ni nit ku nit ku gëm bëgg dàgg na ko am loolu moo tax ñun ñuy àndal man je me rappelle bi ñu njëkkee dem seen mandat c'est sept cent mille ñu njëkk a jox bu ñu génnee dañu nekkee seen repas Aziz nañu non non sept cent mille kenn seen repas dañ ko financé en 2013 jël sept cent mille jël fond bu nekk lebal cinquante mille pour euh, pour ñu siy liggéey parce que boobu ñu génne dañuy non dañuy ñu nekk jëlee paas ñu nekk seddoo ñu nekk seddoo Aziz ñi sept cent mille dañ jëpp nekk cinquante mille financé donc xale na boo xam ni man magam la mais xale ko am jot ku bëgg daganal comme conviction te xaalis taxu koo jóg wala leneen moom liggéey ku bëgg daganal donc loolu moo tax man may ànd ak moom ñu bëri dañ may wax ni muy da ngay ñàkk fayda nga ànd xale bu ndaw bi xale ma ne non bàyyi leen ànd ak moom parce que kii bëgg a Dakar te aussi as li loolu am am noo dañuy am ñu loolu am daal donc man loolu moom moo boole ak moom tey ma ànd ak moom encore une fois donc 2013 ba léegi ñu ngi Soubassar Cissé métti na trop nag métti na mais tey nga am ngor nañu ànd ak moom donc je vous remercie maa ngi leen di nuyu ñëpp ci aussi am loolu ñëw ñu porté suñu choix parce que c'est quelqu'un boo xamante ni ñun bu ñu dalee liggéey moom je pense que te deux mille douze la woon boobu je pense ñu ngi école ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi lycée bu yàlla def tey mu nekk ay ay universitaire ñu ànd ak moom di gën a continuer ci moom di liggéey man su li di tout le temps nee naa raison si waxtaan waxtaan laa mun joxam mais waxtaan laa gën a bëgg te bu defoon si biir waxtaan kese kese du mu yegg si ñun li mu jigéen man je me proclame waxtaaniste ñaan rek man man dama leen je suis pas Macky je ne pas Macky des fois Macky dañuy wéeroo sax si ay idéologie mais Makhtar moo tax aussi bëri nañ man je pense que tey jii amul dara lu ëpp du du ressort ñun ñun quotidien sax nga waroon toog di traité loolu cause boo xamante ne bu noble la moom aussi étudiant mu engagé. je j'aime toujours entendre des mots révolutionnaire parce que li ñuy wax képp kuy révolutionnaire rek changement la bëgg am ñun changement boobu dañ ko war a boole bu ñu bëggee yëpp changé ñu war a booloo changement bi bu ñuy xeex ay at je pensais que 2014 amul luñ ci ñàkkante xeex nañ jaay at boobu xam ne amul sa carte d'identité nationale yàlla xam na ko mais dañ doon dem ànd ak mag ñi naan leen bu leen voté Oumar Sarr day yàq dëkk bu leen voté jiw tey jii Macky Sall jox na pouvoir boo xamante ni day ñun war a bëgg sàngaale yi def benn bloc la ñu descendre bu jaree bu jaree fokk ci mairie bi dañ koy fokk ci dénk ko koo xamante ni ku engagé la ku gëm dagana la koo xamante ni tey jii situation étudiants yi di fanaan si couloir yi dina arrêté étudiants yi financement ñu bëgg a entreprendre entreprendre ñu bëgg liggéey ñu wutal leen ñu liggéey famille ñu ñu ñu jox leen financement je pense que ni loolu la ñuy xaar si loolu ñuy xaar si bépp koo xamante ni li nga yaakaar ni da nga engagé pour mën cause Dagana te mën cause Dagana moom waa Dagana yëg seen bopp te ñu xeex xeex ba am benn benn benn benn solution boo xamante ni économique boo xamante ni tey jii kuy jaay gerte dina si gis bopp kuy jaay tool dina si gis bopp kuy def commerce dina si gis bopp te loolu lan moo ko mën a may entreprise usine te nañu fexe nañu xeex suñu combat élection yi da ngeen da ngeen wut ay programme yoo xamante ni socle yu solide yoo xamante ni tey koo ko mën dóor kooku mën dóor Abdoul Aziz kooku mën a dóor boo taxawee li nga sama programme boo gën a riche sama programme fexe environnement wu Dagana changé ñun moom loolu mooy suñu la pollution première pollution nag Oumar Sall te bu xeex Oumar Sall pour ñu xeex képp ku nekk dina Oumar Sall récupérer suñu mairie jox ko ci loxo yoo xamante ni tey jii ku bëgg ku defar Dagana ku bëggul Dagana moom mu wax ñu li mu yéene li mu bëgg si ñun ak li mu bëgg àndee ak mu doon àndu naa message bi di gërëm nag Pape Diouf tey dama ni du ñu kontaan lu mu mujj wax rek lay jàpp te je bien que waxoon naa ko mooy famille ba nga xam ne dafa gis référence si ñoom loolu ko yàgg wax man loolu tey jii moom a gën neex tey jii ñëpp waa Dagana nekk bëgg na baax mais man baax boo gis si commune bi bii suñu manqué def témoignage si comité Ablaye Dieng euh, bi bokkoon di jiite te man gis déggantu ma ma ne ko lu ma nekk si yéen day man yéen dama bëgg ànd parce que dama gis cofeel mais dama gis yar dama si dama si wax rek pour tënk si tuuti rek ndax dama am discours ba nga xam ne dama ko wax français ak ba nga xam ne dama ko mais dama kontaan ndax dafa may commencé il nuyu nit ñi baat bi nga xam ne ñu ngi ko déggee di gërëm nag ak kontaan bu baax a baax baax bu ngeen may ma rek ma am baatu nasaraan bi nga xam ne fëggoon naa ko mooy nga xam ne bëggoon naa ko waxtaanee fi tey ci comité central tey bu ñu waxee comité central mooy bu nekk dañuy dellu sa comité xool lan nga am ak fan la pour bu fekkee wax ñëpp nañu indi seen ay loolu day métti day diis dafa am fu ñu jëm. ñu dem jëli comité ba pare suñ demee jëli comité ba pare après daañu xam ne ñu def loolu daal la précision boobu laa bëggoon wax maa ngi entamé sama discours en français ba pare ma ñëw yegg ko si baatu wolof bi xam ne moom la ñu déggee ñu ñëpp. le progrès social et humain monsieur Abdou Aziz Diaw tient son comité central comité politique comité central du 29 mai en du comité. bàyyi gol ñu mes chers camarades mes chers responsables de la première coordination de Dakar du comité politique mes chers amis et sympathisants mon cher grand frère Gallo Ndiouk le dit président du comité ainsi que la famille Ndiouk nous sommes réunis ce mai pour la joie d'être ensemble depuis cinq ans nous avons travaillé pour l'intérêt de notre vie et de nos parents valorables un travail marqué par un amour et un respect très profond entre nous. Malgré la pandémie, nous n'avons jamais coupé avec la base. Et je ne saurais commencer sans faire ce rappel de ce témoignage à ce grand comité qui est Galandou. Toutefois, en tant qu'acteur politique, nous avons aujourd'hui jugé nécessaire de partager chacun à sa place, tous ensemble. Notre seul objectif est de répondre à l'urgence, je dis bien même à l'urgence sociale, dans toutes ses dimensions, et garantir à tous les Walawalo la dignité à tous. Nous allons vers des élections territoriales importantes et décisives. Un ensemble d'activités intenses doit être mené. Et je demande à nos partisans de demeurer mobilisés et de continuer le travail de mobilisation et d'implantation. Notre victoire ne fait aucun doute. Nous gagnerons la prochaine élection territoriale. Je réaffirme mon engagement, mon ancrage dans le Benno Bokk Yakaar, dans la majorité présidentielle et ma loyauté envers Mouhamadou Makhtar Cissé et son excellence monsieur le président. Je dis, je dis bien merci toute la famille Ndour. Je dis bien merci toute la famille. Et enfin, un grand merci à notre grand frère Galondou, le président du comité. Vive le comité Galondou. Vive la première coordination de Dakar. Vive Mahmoud Marta Sissé. Vive Abdou Aziz Diaw. Vive Dawalo. Vive Dagana. Vive son excellence Vive la République. maa ngi kontaan. dafa dañ da nga xam ni il fallait ma defoon ko si baatu nasaraan ndax suñu jógee fii suñu chargé de com dañuy tënk ñu Dakar waalo waalo yi yëpp seen structure bi nga xam ne moom la jàppee moo war jëriñ Dagana muy politique ndax jàpp nañu politique rek mooy mbokk bu kañ wax mooy l'affaire de gérer la cité benn comité laa wax muy waalo waalo daje Dakar xalaat nañu lu bëri ànd daf yendu politique waxtaan di xalaat seen mbokk waalo waalo yu nekk ci biir Dagana di xalaat seen mbokk biir waalo ndax kon pour man politique ay proposition te li ma def tey jii dama si kontaan xale bi te léegi muy Aliou Sène wax na programme xëy na dafa am tuuti lecture programme ñëwagul incha allah daan si dem mais soo gisee mu jël benn question kese Dagana bay banque du ñu xaar élevage banque mais dafa jël benn question muy sant ma wax ko ndax lu tax ko xale bi am na lu mu wax muy mbay njëriñ ñun ñëpp tey ay waalo am nañu man si seet ku nekk am nga la def biir waalo te kenn biir ma am lu may dund man Abdou Aziz Diaw man socialiste laa dama gëm ni àddina social moo ko mën a yor ñun bu société africaine tey mënuñu nekk ay libéral mënuñu nekk kii am kii am ndax yarewul na ko bokkul si suñu culture ñun société bu ñu nekk bi. kii bu amee ñaar day jël benn dam jox ko ndax man loolu laa jàppee moo tax ma nekk socialiste man dama libéral te fépp laa koy waxee moo tax toujours dama intitulé le programme social et humain ma am lu ma xaw dund tuuti par rapport ak Dakar parce que mën naa ni depuis juróomi at a nii kuy def rajo dalay woo ñu war dem war defal dem man sama bopp laa xamal soo gisee ma jël ko dama ko dund yow yaay envoyé carburant bu ko bu leen yóbbu Louga yaa ngi envoyé carburant bu ko yóbbu Ndar pour rek scanner pour ñu noo Dagana ñun fu ñu toll si Dagana si dëkk war nañu mën am nag scanner war nañu mën dama Louga war nañu kii malgré district ñu am état nag dafa am lu mu yor si kaw am lu mu dénkaani suuf lu mu dénkaani suuf mooy collectivité territoriale am ñu ngi ko dénk ñu ngi ko dénk nag am na comité duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko libéraliser dénk ko un comité de santé comité de santé yooyu du ñuy am xaalis ndax soo ñëwee hôpital da ngay dagg tekki dagg lépp du ñuy am xaalis mais xaalis bi ñoom dañ koy jël di si def yeneen affaire xaalis boobu tey moo waroon régler problème mu Dagana ma nag kenn ndax dama jàpp ne ñooñu seen vision am am la seen vision bu xalaatu ñu jëndal waa Dagana hôpital euh, rajo euh, appareil rajo wala appareil scanner ndax soo leen xoolee sax seen dund seen salaire yu leen di fay par weer àggul sax fukki junni mais du ñuy am niveau de mag ba nga xam ne ba day jaaxal population Dagana léegi nag mairie bi daf ko dénkaan loolu loi rek moo ko wax même mairie bu bees bu amee mën nga dindi comité de santé bi daf ko ay unité de santé mais boobaa mairie bi moo koy gérer bopp te dama jàpp ne ñun du ñu sonn man Abdou Aziz Diaw xëy man mën naa di tey su ma fayalee ñaar si weer bi mun ma fayal ñaari nit oto pour ñu dem dugg man bu mu ko mënee sama morom mënu ko mu dund mu metti ma trop tey je sais que yéen ñëpp a ngi ndax ku nekk la ngay def dagan xamoo si bërki démb toog muy asiat c'est un parent muy xale bu baax muy xale bu bëri dama bëgg rek tuuti témoignage boobu ndax dama jàpp ni loolu lay dund bëgguma ko sax soulever ndax papa sama papa la ëpp na mu si dara léegi dañ ko war téléphone ni ko Aziz sa baay la man nijaayam laa tey papa mu ngi Louga maanaam moom ñoo àndoon di politique tey presque atum yàlla Louga la tëdd mënutul ñoo dagal parce que day def jalis mënutul ñoo dagal wala nga dund dagal pendant de 30 ans 40 ans 50 ans nga léegi pour nga dem weekend moom mooy mu di jël oto yóbbu papam deux jours mu dellu soit Louga ndax fa la mën topp ndax day def jalis trois fois dans la ma jàpp ne ñun xëy na état man état laa ndax Senghor Abdou Diouf Macky fi nekk ñëpp mënuñu régler problème Sénégal mais ñu dénk ñu suñu population ñu dénk ñu suñu dëkk war nañu mën def tuuti war nañu mën jël si seen mooy bopp wala seen doole bopp jëndal doon askan bi Makhtar Cissé dama koy sant di ko gërëm ndax na matériel bu bëri may ko wax naa ne ko jël dam jox comité de santé comité de santé man ak moom wax naa ko ni ko man ñii du ko d'accord man d'accord ma doxalin bi mënoo jënd garab ay millions di ko dénk comité de nga xam ne bu ko waal waali soxla daf leen koy jaay man daal lii je suis trop sensible à cette question de la santé là jàpp naa ne tey fi ma ko waxee yàlla dama fi defal ndam yàlla du mu fi defal ndam nag dana jàpp ni si mën na si génnee si ñuy toog ni fii ñëpp tey loolu duñ ko war régler duñu war régler problème de santé bu nekk bi dagan te loolu bu ñu def ko il faut que ñu jëlee fi li fi nekk li li fi nekk li nag man xaw ma leen nekkuma ak ñoom mënu ma leen juger mais jàpp naa ni tey comité de santé bi ni muy doxalee ñoom la neex ndax bu leen nekkoon tey tey tey tey ñu bind arrêté arrêté comité de santé bi jëlal ko ku fi nekk fii bëgguma ko tuddee sama cousin la Oumar Sarr muy Maxtaar muy Cheikh Cissé ñëpp la classé boobu képp kuy waalo waalo man je sais que matériel yooyu matériel yooyu waalo war a ko manqué ndax seen ay doom am nañu amin bi seen ay doom mën naa ne ñu ko du ma koy du ma du may jël rek responsabiliser Oumar Sarr damay jël waalo waalo yëpp généraliser leen tey bu ñu takk woon matériel scanner war na génn a dagana même bu ko Macky Sall Macky Sall du jël Macky Sall ministre budget mais ministère de la santé amul xaalis bu doy pour jox ñëpp day jot ñi bàyyi ñii kon nag donc comme que am nañu ay doom te duñu politique maa ngi leen di ñaax di leen ñaanal ci comité central bii Fabi Golo Ndiouk aywa di si lancer un appel à tous les cadres à tous les jeunes ñu jàppale comité de santé boobu pour le moment ñu fi nekk ba bañ mu fay jëlee mu jëndal ay matériel waalo waalo yi man de sonn na man Abdou Aziz sonn na ndax vraiment sama salaire attanu ko mënuma toute l' année chaque deux mois chaque trois mois. wala chaque mois léegi nekkatul sax parce que naa ne chaque mois la am na ñoo xam ne sax man damaa leen ne ko beneen rendez-vous ba beneen weer yéen man dam Louga war a dem Ndar am ñoo xam ne bu ñu jógee dem Ndar sax yi bu ñu jëndee appareil yooyu sax jàppoon naa ne amul mais bërki démb naa ne léegi mën nga analyse mooy damay wax rek man dama jàpp ni ñun waalo waalo yi ñàkk ñu ñu ñàkkee loolu te yéen tamit bu ñu mënee tey suñu progrès politique ñu mën ko si boole ñu mën ko si tënkaat ñu mën ko nas ndax xaalis rek rek lay jar am nañu benn cousin bi nekk foofu muy Tidiane Diop nee naa Tidiane man de su ma amoon moyen yàlla dimbali ma bu baax xam naa ne hôpital bi day tëj ndax damay dem créé beneen affaire fii Dakar ñu may opéré xale ñi di di ma defal échographie di ma defal ndax man xam ndax dama jàpp ne adduna ñun man socialiste la dama gëm ni dama gëm ni population état du ko bàyyi dama gëm ni population am na nag ñu gëm ni état dafa war a bàyyi population mooy libéral bi man góob loolu moo tax sama nekkin ak ñi ma àndal sax su ñu ñu ñu àndal Makhtar Cissé am jafe-jafe ak ba si sédd lu ñuy séddali sax toujours ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a am ñoom ñooy sédd kii daf may tooñ sama cousin <laughs> c'est un cadre à la SONES mais tey lu ñàkk lu mu ñàkk si politique yëpp man màkk ndax suy séddal amee du ko sédd dama koy xaj loolu laa koy wax moom laay wax Kousi Baara moom laay wax Boye moom laay wax liggéey laa mën tey jii Makhtar bu ma joxee xaalis je vise les gens les plus diminués pour jox leen mais tey am na ñoo xam ne tey ànduñu sax si politique ba may def noonu du dagal ndax loolu gënul leen ñoom pour ñoom lu Makhtar joxe si ñoom la war yem warul dem fenn man nag damay kontaan tey soo gisee question de santé bii ma ma mën ko wax ndax ñetti question rek laay wax santé sociale ak ko mën a te li ma wax si sant bi je crois que maa ngi ñaan maa ngi fii si famille bi suñu amee suñu ay doom ndax tamit famille dafa large am na ñoo xam ne yàlla wërsëgal na leen ñu gën xool mu ñu gën xool Dagana lu hôpital bi manqué ñu taxaw si ñu ñun mënaguñu def lu bëri lu ñu mën def mooy jàppale rek kuy dem analyse kuy dem échographie ñu wutal la passe kuy dem Louga loolu ñun mënuñu ko mag état sax mënu ko état moom foofu toog am docteur am boo ñëwee docteur mu am la yor nga toog foofu di xoole comité de santé bi am na xaalis mais du jël santé du ko jël en charge day bañ te comité de santé boobu il faut que personnel yi fay nekk di liggéey ñu wax naa leen et mën nañu fa liggéey ne ndax boo de santé yooyu ay unité administrative ñoo xam lépp luy da ngay faj France même boo liggéeyul sax gars yi ñu lay fay par weer kon na doole ñun état yi nag suñu état Afrique moo amagul doole xëy na daañu am ñu gis nañu pétrole ak gaz bu bëri si dëkk bi loolu la wax ñu ñaan yàlla rek yàlla na jëriñ population ba de sorte que tey sénégalais kuy jalis doo fay kuy def échographie doo fay ndax am na am na France am na États-Unis loolu moo ko am man li may wax télé laay wax ñoom ñuy dégg même bu amee France xëy na ñoom seen niveau de vie may na leen ko pour ñu mën jël loolu en charge mais suñu cadre yu ñu am yi daal ñaan rek dina lancer un fii si dans la famille ñu nekk une famille man comme li may waxat rek une famille vraiment ñu ma gëf cër ñu ma respecte ñu ma bëgg vraiment bu dagana meloon na day jeex ndax ay valeurs yéen jiital ngor yéen jiital te vraiment maa ngi si ñaaxal waal waal yëpp ñu taxawee noonu ñu leen ñaan rek ñu jàpp si loolu jàppale ma si loolu jàppale waa Dagana si loolu ndax seen ay yaay seen ay rakk ñooy xëy toujours di dem Louga loolu dama koy def témoignage muy xale bu baax ah. tey parce que papam loxo kenn fekk ko fa lépp moom moo koy defal loolu te xam ngeen jël yomb ñetti semaine bu nekk ngay fay 60 mille te loo ko mën Macky Sall sax mënul Macky Sall sax du trois fois dans la semaine day fay soixante mille francs lu ñu si loolu te lu ñu jàpp ni jalis soo gisee mooy waxee fii si social bi ma tënk bi ma waxee tey daf ma le temps may ñëw programme daañu def programme am ah. daga na yi daan ànd suñu ànd si daañu def programme ñu ne ñun lii mooy def programme comme que duñu politique daana am yoo xam dañ koy jël ay pàcc rek di ko waxtaanee tey lii daf ma daf ma daf ma daf ma daf ma daf ma daf ma daf ma dafa métti si man dafa métti si man dafa métti si man dafa métti si man ba nga xam ni xam naa ni am na ñeneen bëgguma sax di wax mais tey xëy na ma place pour man wax loolu damay cotiser sax parfois daga na ñu leen ah booy am na benn cas bu ñu waay ñëw semaine prochaine lu ko war a jàpp nañ ci man sonn naa kon donc loolu ñëpp la war li mu leen di wax daga na moo am fii biir golfan pour am na santé am na hôpital mais am na yoo xam ne tey jii bu fa ñu dugg tant que duggoo foofu doo ko xam gis day ndoroom hôpital yi ñuy dem rek dalal jàmm bi boo fa duggee état médecin kese lay fay médecin ndax médecin bi moo jàng ba am diplôme université am état di fay le reste yëpp yéen ñi yéene fay ñoom parce que loolu moo xew kon donc vraiment maa ngi sant yàlla bu baax tey jii li yàlla maye ma tey mën naa ne li fii laa ko njëkk soulevé tey si politique ndax yàgg naa politique mais su ma demee politique programme laa kii laa daan wax Makhtar Cissé war ñu wax waxu Macky Sall war ñu wax waxu politique ba nga xam ne nekk sant mais tey lii question bi mooy fii laa ko njëkk te dem si sant yàlla ñu ñaan yàlla yàlla ñu ko yàlla may ñu mot a baax a baax wax dinaa ko soulever ndax mooy doon sama premier paragraphe à part remerciement yi ak nee naa leen nag ñun duñ ci mën pour mu arrêté mooy tant que bi mënuñu mairie bi rek nga mën dafa même bu bi te gis nañu ñu gañe mairie bi nekk ministre dafa ñëw kon ñu ngi ñaan yàlla sax yàlla nañu yàlla may bu ñu ko gañee ñu mën ko def mm-hmm. ndax gis nañu fi ministre gañe mairie mënu dafa ñëw jëluñu ko en charge te ñooñu ëpp xaalis waaw mën nañ jël seen propre xaalis wala jël seen li ñu denc yi def ko mais daf ñu kooku moom Oumar Sarr kese laa koy wax wàllu wàllu yëpp laa koy wax dëpp kon donc nañu sensible par rapport suñu ay mbokk di ñëw nag par rapport que ni naa si bëgguma mënuma ko ah, ko traduire lépp en wolof mais l' essentiel nee naa man loolu du ma ko négocier ak Dagana Wax même bés moo xam ne Maxtar Cissé bii ma àndal di xam ne wax naa ko si en kàllaama bu français moom laay àndal te maa ngi ànd ak moom di fédérer sama kóllëre moom ba léegi donc si jiital ñun loolu duñ ko négocier même suba bu Makhtar si si nekkoon foofu suba loolu mooy doon suñu premier combat mu réglé te réglé wu ko ñun daañu xam ne ñuy def waaw loolu immédiat mënuñu ko nag xëy rek dañu miin rek tam jëndi matériel ndax benn matériel laaj naa waa ji mun ma 60 millions lay jar ma ne ko man su ma mënoon def presse presse jeex si année bi ma jël ko mais mu ma presse 60 millions bu ma defee day jeex non waxin la rek non si su ma mënoon def près un an wala deux ans mu def ma def ko ndax jaral na ma mhm. ndax je sais que maa ngi def sama xaalis foofu te so luu ma ko xaalis bi mu ngi dem Louga mu ngi dem mënuñu ko ndax moyen la transport bi rek mën na ci trans soo xoolee li ngay passal nit ñi rek waxuma la soo demee da ngay fay soo demee da ngay fay mais passe bi rek mën na soo ko dajalee si at bi wala ñaari at yi war na mën a jënd la près te vraiment maa ngi ñaaxaat wax dëgg yëpp luñ ci tax ñun nag duñ ci négocier duñ ci négocier kenn même yéen ñi ma toogee ak yéen képp ku fi mën fal suba du ma si négocier kenn si côté côté social aw ma si baatu ginnaaw baatu kanam laa si am ku ko bañ jëfee dinaa jëflante ak yow bu mu ma xam ni d'accord politique boobu ma bàyyi la dem seeti dañu ndax man loolu lañ ma yore social lañ ma yore ñu fexe ñu teg suñu tànk si santé yeneen côté bay yeeg yooyu dañ si ñëw incha allah daañu wax lan la ñu xalaat si kivet bi lan la ñu xalaat si xale yu jàng yi la nga xam ne nag mairie moo ko war a moom wax naa ko ni duñ si négocier wax naa santé wax naa si wax naa si sama philosophie politique mooy le progrès social la gëm socialiste la du ma libéral te loolu soo nekkul socialiste mënoo ko def libéral rek mën def gëm politique ba nga xam kii day am juróom kii am benn wala kii am juróom benn kii am benn man gëmma loolu dama gëm ni adduna bi ñëpp war yem ñëpp war toll équité sociale dafa war am loolu laa gëm loolu lañ ma yare te si loolu laay dee kenn mu si di socialiste la kon dama si sant yàlla bu baax a baax léegi nag vraiment di ñëw di dem muy troisième yi élection locale di si kontaan trop vraiment di Pape Gora Ndioum maa remercier waat ndax euh, mën naa ne jiital na ma si ngor jiital na ma si dëkk euh, mbay tamit wax na ko si discours am ak ndey kumb dëkk dafa neex nekk di politique ñëpp ni yow nañu àndal mais ànd bi yëpp dañ koy jël rek delluwaat Mouhamadou Makhtar Cissé man góor laa wax naa bi ma mu waxtaan ak këram nee naa sama nawle la dama xool sama man dafa ñaari ma mbokk ndey baay mais dama ne ko du ma xool loolu su ma ko xoolee loolu du ma laa lay jàppee am na loo xam ne boo si taxawul rek dama damay damay fexe nga taxaw si te am na lu bëri taxaw na si moom ci taxaw mais nag lu bëri ñëw am na fuñ fi élection locale ñu jëm élection locale nag ay carte la ak bëgg sa dëkk li mu ko mujj wax nee naa ku bëgg a dagan dem wax waa dagan man yow laa doon politique la politique ma kenn ku bëgg dagan da ngay dem dagan nga wax waa dagan foofu comme que nag élection locale ñu jëm man damay ñaana waa famille bi d'abord ndax famille la ñu amaa fii te may ñaan yàlla rek comme li mu wax na famille yëpp mel na famille Ndioub ak famille Ngom yi ma gis nii parce que c' est des gens très ñu am góor nañu ñu am diine ñu am fulla nañu te vraiment j'ai pas beaucoup de wax naa ko démb si euh, WhatsApp j'ai pas beaucoup de mots pour exprimer moo sentiment envers euh, Ibou Ngom c' est des gens très Dagana vraiment ñu ñaan yàlla nag yàlla yàlla gën dëgëral loolu man léegi politique léetuma ak yéen pour doolu politique ndax léegi kóllëre mooma léegi dagana nag tànk kanam laa sam rek comme li mu gars yi wax élection yi nag maxtaar bi ñu àndaloon goro man gor laa man lu ma ñëw ba tey rek di wax maxtaar baax la moom moo fi nekk moom la ànd ak Macky pour changer bu pour changer politique bu keroog bu ñu wàccee Omar Sarr dem na dagana dafa métti ñoom def naa évaluation toog naa ma toog ma ne ah, mu wax man gisuma si ëppoon nañ ko fi ñaan ndax neen de nouveau toujours discours am de nouveau laay wax c'est-à-dire d'accord ne def na échec léegi pare na léegi comme que Umar moo mën pare fekk suñu si Macky Sall kon nga la ñun ñuy àndaloon Macky Sall li ma lay wax mooy damaa si Macky Sall nga wax mu jox na sunu liggéey mu sunu wàll du ñam jox sunu ay bopp keneen ku la wax Umar Sarr beneen discours la wax daga na day waxul dëkk Umar Sarr discours boobu la wax naa ko bu baax ndax man du ma continuer bu du ma la may wax rek Umar Sarr li ma bokk Umar Sarr si ma ak Umar Sarr ndax Umar Sarr suñu ñaar moom bokk lay bàyyi seen kër genn wàllu kër gi sama kër maam kon dañ si sant yàlla mais loolu waxuma Maxtaar si si seen kër googu mu dëkk noonu sama kër maam sama maam jigéen la dafa génn sëy calde kon donc man lu ma léegi daga na relation de parent mais am na loo xam ne dëgg bu jotee da nga koy jiital élection lañ jëm ñun moom nañu àndaloo man am naa fulla ak fayda ba nga xam ni li ma bëgg a def biir waaw gisuma ku ma koy tere def Oumar Sarr moo leen ëppoon moyen ëppale ëppal teraanga politique ndax teraanga politique bu ñuy wax mooy jox la tera jox la pouvoir ndax ñëpp xam ne Abdoulaye Wade joxoon na pouvoir Oumar Sarr mhm. mais tay bokkoon nañ si xale comme lu xale bi di wax barki démb rek ñu xale yi ko waxoon déet na d' accord nañu ni politique bi muy def bi daga dagana ah. rafetul teraanga bi ko Macky Sall ah, Abdoulaye Wade joxoon waroon na dépassé foofu mais ñun au moins contrecarré nañ en étant élève en étant étudiant ba 2012 léegi nag loolu moom la am na ñoo ngi koy déglu te si gannaaw mi ñu nekk mais déglu Maxtaar comme nag Abdoulaye Diané dox taxul du ñu dem liggéey taxul du ñu dem wax ak waalo waalo yi taxul du ñu dem fekkee waalo waalo yi fu ñu nekk wax leen si Dagana wax leen si Sénégal wax leen si réew mi man foofu laa toll jamono jii foofu laa teg sama tànk te du ma dellu ginnaaw tey jii samedi bii yéen si yéen laa ne comité Ndioguène mais dem samedi bii ñëw maa ngi dee Dagana di wax waa Dagana waa même même même même instant ci loolu laa jàpp mais ndax loolu soo gisee ma taxawee taxawee ko mais danga ko taxawee pour bëgg a dagal danga ko taxawee noonu pour jiital waa dagal su baax danga ko taxawee noonu pour jiital Mouhamadou Makhtar Cissé ak tépp kuy ànd ak Mouhamadou xam ngeen nag góor yéen ko seexal man tey mënoon naa def na ñëpp rek ni Makhtar wàcc na ma toog je ne le fais ndax danga koy wan ni man bi may ànd ak yow danga fekkoon ngay politique yàlla boole ñuy ànd Moustapha dana seede wax na ko bëggumoon sax nga koy wax 700000 francs du dara ñu jox na ko nga ñëw agence yor naa paas jox naa gars yi paas ñu ne 700000 yéen créé gars moom créé comme que Dagana a Dagana jàppale Dagana ñu def si la famille du ko gagné Dagana fii ak 50 ans te am na fu ñu jëm ah affaire yi changé na am na fu ñu jëm dafa toogaat man nag du ma wax ndax dama gëm ni dama wax xeex pour jëlee këf mais tamit il faut que ñu waxante dëgg il faut ñu waxante dëgg am na fu ñu jëm il faut ñu liggéey pour jëlee këf suñu fu liggéey du ko jëlee léegi nag Matar dëgg la xaar xaar xaar xaar ñu ngi koy xaar xaar na bëri ndax ñu ngi xaar ba am na ñi nga xam ne sax daw nañu ne candidat yi waaw pour di njëkkante mais fi njëkkante mënu fi am fii moom comme lu xale di wax rek bu ñu du fi naanee ñeex moom na leer léegi léegi sa ndox ñu ngi biir naanam la mais dama gëm da liggéey da ñëw man tey ñoom ñooy di jëkkër bu ñu ma ñëwoon bu ñu bu ñu paree woon rek pour taxaw daf li ma taxawee ma toog seen yàlla waxuma nag ñu taxawee ko ndax xaw ma lu ñuy def mais man sama relation bi ma am ak nit ñi waalo waalo yi nekkuñu si dynamique si yenn seen yeneen relation yu ñuy def xëy na ma ñëw yooyu la ñuy xam xëy na yooyu la ñuy téye wóolu seen bopp dem d' accord nañ sax loolu peut être doole wax ni candidat mais jàppale ni galo man élection yi ñu jëm maa ngi si ginnaaw maxtaan mais tout le temps nekk ginnaaw maxtaan li ma def nii pour jëm élection li ma créé tey jii yéenay dem élection man yéen laa yéenay dem voté si bureau yi te yéen nee nañu Aziz yéen àndal Aziz nee max maxtaar la àndal kon donc loolu dafay neex ba pare yéen tamit nee na maxtaar yéen àndal kon donc ñun amuñu problème amuñu problème bëgg man amuñu problème politique xëy na nit ñi parfois li di bëgg dem dagal nag muy di problème ndax xaalis léegi am na benn xaalis sax ne ma temps yi pour saaga Aziz sax 1 million lay am man bëgg naa waa dagal saaga ma lool man ñëpp su ko saagee rek ñoom ñëpp daañu am wala saaga yi sax su si booloon jënd ay rajo scanner ak yooyu noonu affaire bi laa ne wax ni ma tegee Makhtar noonu laay ji noonu laay noonu laa def même Oumar Sarr en état opposition parce que c'est un cousin dama daan ñëwal ay nit dama ne si Oumar Sarr mu jàppale la parce que moo fi nekk taxaw moo amul position boobu pour jàppale la pas mal de personne man ne dama ne si Oumar Sarr moo fi nekk am na mu jàppale la mais man combat bi may combat moom xëy na attan naa ko mën naa ko ji mais dem nañ ay bëy yu bëri yu bëri maa ngi ko reet nañ dem nañ mais nag ñun comme li ñuy wax rek fii politique fi am damay kontaan si baat yi ma dégg sama tonton sage bi vraiment dama si kontaan trop trop trop trop trop trop tey man bégte laa fi jëlee fii léegi te incha allah yal nañu si yàlla defal ndam yal nañu yàlla defal ndam si bis bi ndax nekk na bisu bisu bisu bisu bisu mbokk bisu dox mbokk ba nga xam ne tey dama kontaan su ma gisee ay umeebat seen yi ay di waxtaan c'est-à-dire depuis xale ba léegi ñooy ànd ak noonu ñuy waxee ñëwaat dajeeg les sages comme pas góor bi comme Ibangom comme sama mère rafet yi ak sama jigéen rafet yi vraiment dama kontaan si en tout cas ah, maa ngi wax maa ngi tuuti rek euh, am na la nga xam ne moom laa am na 23 personnes yu yokkuwaat ci comité di remercier Mayou Louga ak Iba Ngom naa seen liggéey 23 yooyu daaw ñoom voté Dagana mais man wax naa ne jox naa ni sama kàddu Macky Sall mooy yor dëkk ndax moom mooy jël ni ubbi na ubbi euh, révision yi heure bu ko la semaine bi suivie def suñu benn weekend comité waat jot fan njuugeen ak des autres ñu dem Dagana def suñu 48 ndax foofu yéen dëkk seen adresse yéen a ko changé woon xëy matin ñu dox naa ko dem mairie mu jox ñu suñu résidence ñu dem bind ndax daf ñu koy jox ndax foofu yéen dëkk loolu moom si négocier ak commercial su ma ko joxul sax dama koy ñëw foqati foofu noonu ndax foofu yéen dëkk noonu leer ndax i problème résidence dafa am problème ndax danañ dem gën a ñuug mën a dem ñu ne ko dëkkoo fi ndax adresse dafa changé adresse moo changé léegi nag heure du dara euh, dafa 48 heures bindu mooy daggee les 23 personnes ya bindu bu ñu bindoo bu ñu bindoo après ñu def la même même chose ah dafa yendu foofu après y' a beaucoup de parents yi nekk à côté def porte à porte xale yu jigéen ñi sax ñoom dégguma sama sama xale sama sama sama jom rafet bi na ma sax une soirée dans dans santé dans la vie on va refaire on va refaire non ko def soirée ñu dem ndax non non dafa nekk ville culturelle am nañu hôtel bu rafet bu nekk foofu hôtel bi bu koy gis rek man ba léegi ay gis laa am comme que xam nga mosagul fa dugg mais ñun ànd fa suñu bàyyi suñu jaay gis. mais mais mais mais déggoo déggoo leen non déggoo leen mais yéen mais mais attendez mais dafa am lu xew. waaw soo gisee ba Paye France waa France troisième âge ñoom ñooy visité foofu noonu. troisième âge France ñoom ñooy ñëw foofu tëdd foofu ndax seen maam ñoo doon tëdd foofu di koor gi nekk si kaw piscine bi wàcc yor seen kurus di wér ndax li ngay dund foofu amuñu ko Europe amuñu ko Amérique ndax seen dex dafa sore foofu man doo doo mos hôtel mais damay am rapport hôtel yi di xam lu xew di bëgg bu fa duggee sax parfois naa xam damay bàyyi ñu <laughs> mais damay waxtaan rek ñuy waxtaan rek ndax soo gisee tagal nuy bëgg tey 48 heures yooyu yaay a une partie de la famille ba nga dem visiter ko mag ñi guddi gi xale yi ñoo ko moom suñu bëggee soirée ñu dem soirée ñun guddi gi ñu suñu soirée xale waaw mag ñee xale waa jël léegi nag loolu c'est un plus c'est dinaa ko def d'abord dinaa ko def sa comité bi parce que vous me marquez defu leen ma dara comme ni Iba rek wax tey jii Iba wax na témoignage bu rafet tey pare woon man si sekk yéen am ngeen ful ak fayda ba nga xam ne tey fii kenn joxu fi dara fii kenn joxu fi fii kenn mënu fi jënd kenn kenn mënu fii nit kenn mënu kenn fii addina bi dafa changé léegi addina bi da ngay génn sax gis ko am téléphone doo xam nga gis Iba Ngom am moo ma gënal njëriñ kon donc nu ñu rafetal ànd bi rek ñun ñëpp ñu ànd nekk benn xam ne lii nag wax naa nekkatul politique xëy na Makhtar Cissé moo ko créé woon ànd seeg moom yàlla dugal si dooleel ñu def ko mais léegi ñu ngi ko téew suñu bopp parce que y' a pas mal nekk fii nekk un cadre à l'AGEROUP di liggéey mais tamit il peut être directeur de l'AGEROUP c'est un cadre kooku dafa jàng xale la bu jàng kii tey mu ngi Sénégal kii c'est un parent d'Agarawa dinaa leen ko présenté tey daay tey ñëw nañ tey mu nekk si boîte agence bu gën mag si Sénégal patrimoine bâti ñoo yor wàllu kër yeeg suuf yeeg yëpp demee il peut directeur kii mu si mbaalu pêche yi di jàppale xale yi ñuy dem ay France Europe kii mu ngi SONES dans deux ans comme li ma wax rek c'est-à-dire ni ñu fexee nag ba ñu ñu ñu taxaw pour jàppale ko. nañu fexe ba suba Ibrahima Diagne boobu nekk une ferte man une laa yor dafa nekk wàllu wàllu jàng jaar si école yu xarañ tey jii mën naa ni bokk na si ingénieurs yi nga xam ni ay xale nañu nekk Azur Azur ñëpp xam ne ko mooy wàllu tëgg kon suñu si amee benn xale bi su liggéey bokk si fin bi kooku sama ferte la suba bu nekkee directeur Azur kooku duñu dugg ci kontaan kon donc loolu laay waalo waalo yi nu ñu am n fulla ba suba Youssouf Fall bu nekkee directeur SONES ñu ànd jàppale ko fekkee day politique mais nag na am ngor tamit dellu si mën ñëw wax ak nit ñëw dénk nit ñi ñëw wax ak nit man loolu foofu laa doon waxee di waxaat merci la famille laay wax wax naa ci France nee dama kontaan tey merci laay wax merci bi avec un grand M parce que jigéen ñi solo nañu vraiment solo yi rafet na euh, sama sage bi wax na la nga xam ne loolu lay sage bi jëriñ ci comédie ndax laay sànq bi ngay wax toujours la laay wax sage bu ñu ko waxee si comité mooy régulateur boo demee dagg na comité bu ñu créé am na sage très rare ngay gis comité bu amul sage sax ba damay wuti beneen paa nekk benn koñ dugal ko foofu pour problème bu amee mu mën taxawee ni nga taxawee vraiment man kàddu yi gën ñaata dégg gën ñaata dégg muy kàddu diine muy kàddu wax dëgg boobu français la vraiment macha allah man damay wax rek di waxaat vive le comité mooy maa ngi leen di maa ngi leen leen di maa ngi leen di maa ngi leen di di leen di yëkkati waat famille bi si kanamu ñëpp di wax coordination yi Dakar lii tey waa Guédiawaye bëggoon nañ ñëw de maa ngi bëgg kenn ñëw waa Pikine bëggoon ñëw ma ne bëgg ñëw waa Kër ma bëgg ñëw benn comité laay seet bàyyi la ma dem seet si am benn comité on pour moo bëgg ko wax parce que ça fait 75 mais dama ko réunir ndax rationalisation la ñu wax tey am na comité yoo xam ne am nañ 30 ñu am 30 ma dajale leen daf leen benn agoon nañ 75 mais léegi 40 ans mën na dem sax ba cinquante ans bu ñu liggéeyatee tey cinquante yi bu duggee dagam avec un peu de bu ñuy def dagam on va gagner ces élections te loolu mënu ma am keneen ku dul ci yéen ne première coordination lu duñ jël man socialiste la fes yi nekk yi parti socialiste bi laa tëggaat fii Sénégal yëpp lañu jël def secrétariat national daf dafa première coordination Dakar deuxième coordination Guédiawaye ak Pikine def troisième coordination Kër Massar Mari yeneen ko Thiès Kayar yëpp dëkk dëkkaan yëpp foofu yëpp ay quatrième coordination ñu jël cinquième coordination def ko Mauritanie ak Dagana Mauritanie ndax man village yëpp dafa am ay nit nga xam ne élection bu jotee comme ni leen di joxee biis ñoom noonu laay waxee waa Dagana ñu jàll ñu fatal ndax ay waalo waalo ñoo nekk mooy kër Abdou Bari Kane boobu ngay dégg daal kon donc ñun liggéey bi man nekkatum fi di wut ñun tax wax naa ko Youssoufal démb man j'ai fait un travail ba nga xam ni Makhtar dafa toogoon këram xëy na yoon nuyu mais suñu amuloon volonté politique bëgg a dagal on va pas réussir ça volonté moo ñu tax ñu réussir volonté moo tax ñu réussir loolu bi ñu ko defee nag am na yu bëri yu fi jub yeneen affaire mu ngi fi commencé waat am mais garaw politique moo demee noonu ndax tendance depuis Senghor ak Lamine Gueye daga nag ñii dañu àndoon Senghor ñii àndal Lamine Gueye loolu tey moo amaat ku bëgg a ànd ak Aziz na nga ànd ak Aziz ku bëgg a ànd ak Makhtar nga ànd ku bëgg a ànd ak Cheikh ku na bëgg na ay comité yéen am man tey kii sama secretaire général moo ma yoral sama fiche bi am naa 60 ëpp na 60 mais man dama ni tant que demaatuma si nit ñi waxaat leen lan laa bëgg du ma di répété noonu laa dama fépp mu mënul ma wala téléphone noonu laa ko doxalee. yaakaar bu ñu taxaw lu bëri lu ñu mën def mooy jàppale rek kuy dem analyse kuy dem échographie ñu wutal la passe kuy dem Louga loolu ñu mënuñu ko Macky moom boo ñëwee docteur bi sax bu la mu tëj bureau mu ni amul xaalis salaire a yor nga toog foofu di xoole te biir santé bi am na xaalis mais du jël santé bu ko jël en charge day bañ le comité de santé boobu il faut que personnel yi fay nekk ñu liggéey ñu journal leen et mën nañu liggéey wér du ñu am dama jàpp ne comité de santé ay unité administrative ñoo xam boo liggéeyul sax gars yi ñu lay fay par weer am na yi nag suñu état Afrique moo amagul doole xëy ñu ngi gis ñu pétrole ak gaz bu bëri si dëkk bi loolu la ñu wax waaw ah, ñu ngi ñaan yàlla rek yàlla jëriñ population ba nga soppate te Sénégalais kuy jalis doo fay kuy te def échographie doo fay ndax am na am na France am na états loolu moo fa am man li may wax teel laay wax ngeen muy dégg même bu amee France xëy na ñoom seen niveau de vie may na leen pour ñu mën jël loolu en charge mais ñun tey suñu cadre yi ñu amee Dagana laay ñaan rek di leen lancer un appel fii si dans la famille Diouf ñu nekk une famille comme li may wax rek une vraiment ñu ma jox cër ma respecté ñoo bëgg vraiment bu Dagana meloon na yéen mën naa ne politique day jeex ndax ay valeurs ngeen jiital ngor ngeen jiital te vraiment maa ngi si ñaaxal waal waal yëpp ñu taxawee di leen ñaan rek ñu jàpp si loolu jàppale ma si loolu jàppale waa Dagana si loolu ndax seen ay yaay seen ay rakk ñooy xëy toujours di dem Louga di dem Ndar loolu dama koy def témoignage muy xale bu baax na tey parce que papam loxo kenn fekk ko lépp moom moo koy def boobu te xam ngeen jëriñ soobu ñetti semaine bu nekk ngay fay soixante mille te loolu Macky Sall sax mënu Macky Sall sax bu def sa salaire am lu ngay fois dans la semaine ngay fay soixante mille francs ñu jóg si loolu te ñu jàpp ni jëriñ

nekk si man ba nga xam ne xam naa ni am na ñeneen bëgguma sax di wax mais tey xëy na ma place pour ma wax loolu damay cotiser sax parfois dagg na ñu leen ah booy am na a cas bu ñu waay ñëw semaine prochaine lu ko war a jàpp nañ ci man sonn naa kon donc loolu ñëpp la waay li mu leen di wax dagal moo am fii biir Golf am na santé am na hôpital mais am na yoo xam ne tey jii bu fi ñu dugg tant que duggoo foofu doo xam day di romb hôpital yi ñuy dem rek dara jàmm bi moo jàng ba am diplôme université état yéen ñi ngeen di fay ñoom parce que loolu moo xew kon donc vraiment maa ngi sant yàlla bu baax tey bi yàlla ma tey mën naa ne ñun fii laa ko njëkk soulevé tey si politique naa politique mais su ma demee politique programme laa kii laa daan wax Makhtar Cissé wala ñu wax Macky Sall wala ñu wax nekk sant mais tey lii question bi fii laa ko njëkk a waxee te dem sant yàlla ñu ñaan yàlla yàlla ñu ko yàlla may bu mat c'était trop sensible à moi ma ne ko dinaa ko dinaa ko soulever ndax soo xoolee mooy doon sama premier paragraphe à part remerciement yi ma dafi ak yéen nee naa leen nag ñun luñ ci mën pour arrêté mooy tant que mënuñu gagné wuñu mairie bi mairie bi rek mën même boo gagné mairie bi te gis nañ ñu gagné mairie bi nekk ministre te dafa ñëw ñu ngi ñaan yàlla sax yal nañu yàlla may bu ñu gagné ñu mën ko def ndax gis nañ ay ministre gagné mairie mënu dafa ñëw jëluñu ko en charge te ñooñu ëpp xaalis waaw mën nañ jël seen propre xaalis wala jël seen li ñu def ko mais def ñu kooku moom Oumar Sarr kese laa koy wala wala yëpp laa def képp kuy kàddu dana ma wax jooju yàlla kon donc ñu sensibiliser par rapport suñu ay mbokk di ñëw nag par rapport que ni nag wax naa si bëgguma mënu ma ko traduire nag lépp ndax France bi mënu ma ko traduire en man loolu du ma ko négocier ak Dagana wax même si Mouhamadou Makhtar Cissé bi ma àndal bi nga xam ne wax moom laay àndal te maa ngi ànd ak moom di féggal suñu kóllëre moom ba léegi donc si jiital ñun loolu duñ ko négocier même suba bu Makhtar si si nekkoon foofu suba loolu mooy doon suñu premier combat bu rek réglé wu ko ñun daañu xam ko nag xëy rek rek dam jëndi matériel ndax benn matériel la ñaar waa ji ni ma soixante millions lay jeex man ko ma su ma mënoon def presse presse bi jeex si année bi ma jël ko mais mu ma mu def soixante millions bu ma defee day jeex non waxi la rek non si su ma mënoon ant presse mu def ma def ndax je sais que maa ngi def sama xaalis foofu def so mënuma xaalis bi mu ngi dem Louga mu ngi dem mënuñu ko ndax moyen la transport rek mën na trans soo xoolee li ngay paasal nit ñi rek waxuma la soo demee da ngay fay soo demee da ngay fay mais paas rek mën na soo ko dajalee si at bi wala ñaari at yi wala mu jël def fay te vraiment maa ngi ñaaxaar wax dara yëpp ñu sax ñun nag duñ ci négocier duñ ci négocier kenn même yéen ñi ma toogee génn képp ku ci mën fal suba duñ ci négocier kenn si côté côté social aw ma si baatu ginnaaw baatu kanam laa si am ku ko bëgg jëfee dinaa jëflante ak yéen lu ma si jiitulul ma xam ne d'accord politique boobu ma bàyyi la ma seeti laaj ndax man loolu lañ may yore social bi may yore ñu fexe ñu teg suñu tànk sanni yeneen côté bay yeeg yooyu daan si ñëw incha allah daañu wax lan lañu xalaat ci kiber bi lan lañu xalaat si xale yu jàng yi nañ xam ne nag mairie moo ko yor d'abord nag loolu moom wax naa ko ni ñu ci négocier wax naa santé wax naa si biir santé bi wax naa si sama philosophie politique mooy le progrès social la dam socialiste la du ma libéral te loolu soo nekkul socialiste bi ñoo ko def libéral rek ñu mën def gëm politique mercantiliste gëm politique ba nga xam ni kii day am juróom kii am benn wala kii am juróom benn kii am benn man gëmuma loolu dama gëm ñun adduna bi ñëpp war a yem ñëpp war toll équité sociale dafa war am fépp loolu laa gëm loolu lañ ma yar ci so loolu laa jëlee kenn du si dindi socialisme kon dañ si sant yàlla bu baax a baax léegi nag vraiment di ñëw di dem muy troisième point élection locale di si kontaan trop vraiment di bàq gërëm di manqué remercié waat ndax xam naa ni jiital na ma si ngor jiital na ma si dëkk mbay tamit wax na ko si discours ak ndey kum te dafa neex nga nekk di politique ñëpp ni yow nañu àndal mais ànd bi dañ koy jël ak teelwaat Mouhamadou Makhtar Cissé man góor laa wax naa li ma mujj waxtaan ak këram nee naa sama nawle dama xool sama banque parce que ñaar moom bokk ndey baay mais dama ne ko du ma xool loolu su ko xoolee loolu du ma la wax dëgg nawle laa lay jàppee am na loo xam ne boo si taxawul rek dama damay damay fexe nga taxaw si te am na lu bëri taxaw na si moom si taxaw mais nag lu bëri ñëw am nañu fuñ jëm élection locale nañ jëm élection locale nag ay carte la ak bëgg sa dëkk bi ko mu wax nee naa ku bëgg a dagal da ngay dem waxal waa dagal man yow daal lañ politique politique ma kenn ku bëgg a dagal da ngay dem dagal nga waxal waa dagal foofu comme que nag élection locale ñu jëm man damay ñaana waa famille bi d'abord na famille la ñu amoon fii te maa ngi ñaan ma na famille yëpp mel na famille Ndiob ak famille Ngom yi nga gis nii parce que c'est des gens très respectés ñu am góor nañu ñu am diir nañu ñu am fulla nañu te vraiment j'ai pas beaucoup n'ai pas beaucoup de mots pour exprimer mon sentiment envers Ibongo euh, c'est des gens très sérieux daal vraiment ñu ñaan yàlla nag yàlla na yàlla gën dëgëral lool man léegi politique léegi ma ngeen te bëgg politique ndax il faut que parfois gars yi ba ñu jël politique politique la sax politique mais léegi couleur moomu day jeex xale nag tant que kanam laa ni ma gars man góor man du ma ñëw ba di wax maxtaar baax na du ko def jamais de la vie moom moo fi nekk moom nañu àndaloo ànd ak Macky pour changer politique waalo pour changer politique xaw jarab bu mu wàccee Omar Sarr dal na Dagana dafa métti na def naa évaluation toog naa ma toog ma ne ah Omar li mu wax man gisuma si ëpp nañ ko fa ndax neen de nouveau toujours discours am de nouveau laa wax c'est-à-dire d'accord daf nekk échec léegi pare na léegi comme que Omar moo mën a pare fekk suñu si Macky Sall kon nga la ñun ñuy àndalal Macky Sall man li ma lay wax mooy damaa tax si Macky Sall nga wax mu jox ñu suñu liggéey mu jox ñu suñu wàll wax ñu jox suñu ay bopp keneen ku la wax Omar Sarr beneen discours la wax dagal na dégg loolu waxul dëgg Omar Sarr discours boobu la wax dagal déglu naa ko bu baax ndax man du ma continuer bu du ma la déglu li may wax rek Omar Sarr li ma bokk Omar Sarr sax bokkuma ak Omar parce que Omar Sarr suñu ñaar moom bokk ngay bàyyi seen kër génn wàllu kër gi sama kër maam man nañ si sant yàlla mais loolu waxuma Makhtar si si seen kër boobu mu dëkk moom sama kër maam sama maam jigéen la dafa génn sëy kon donc man lu ma dee tala na relation de part mais am na loo xam ne dëgg bu jotee da nga koy jiital élection yu jëm ñun moom nañu àndaloo man am naa fulla fayda ba nga xam ne li ma bëgg a def biñu waaye mosuma ku ma koy tere def moo leen ëppoon moyen ëppale teraanga politique ndax teraanga politique bu ñuy wax mooy jox la tera jox la pouvoir ndax ñëpp xam nañ Ablaye Wade joxoon na pouvoir Oumar Sarr mhm. mais tey bokkoon nañ si xale comme lu xale day wax politique rek ñu xale ñu bokkoon démb waxuñu ko dégg pour compte xëy na d' accord nañu ni politique bi muy def ni Dakar Dakar rafetlu teraanga bi ko Macky Sall Abdoulaye Wade joxoon waroon na dépassé foofu mais ñun au moins contrecarré nañ en étant élève en état étudiant ba deux mille douze ak deux mille léegi nag loolu moom la ñu àndaloon ñoo koy déglu te si ginnaaw mi ñu nekk mais déglu Makhtar taxul na Abdoulaye Diagne taxul du ñu dem liggéey taxul wax ak waalo waalo yi taxul du ñu dem fekki waalo waalo yi fu ñu nekk wax leen si Dagana wax leen si Sénégal wax leen si réew mi man foofu laa toll jamono jii foofu te du ma dellu ginnaaw tey bii samedi bii yéen si yéen laa nekk comité ñu génn mais dem samedi bii ñëw maa ngi dégg daal di wax waa Dakar laaj même même même même question ci loolu laa jàpp ndax vingt heures foofu ñu joxe programme mais ndax loolu soo gisee ma taxawee noonu taxawee wu ko mais dañ ko taxawee pour bëgg a dagal dañ ko taxawee noonu pour jiital waa Dakar suba dañ ko taxawee noonu pour jiital Mouhamadou Makhtar Cissé ak képp kuy ànd ak Mouhamadou Makhtar Cissé xam ngeen nag góor yéen di seexal man tey mënoon naa def ñun ñëpp rek ni Makhtar wàcc na ma toog je le fais nga koy war a nekk man bi may ànd ak yow da nga fekkoon ma gën a yàlla boole ñu ànd si wàllu benn seet wax la bëgg moom sax da koy wax 700000 francs bu dara ñu di jox nga nga ñëw alliance yor naa paas yor naa gars yi paas na créé commune bi sociale si la comme que Dakar ñu ñëw tudd base mais Dakar dañuy seet suñu bopp yi waxuñu même bu xëy ñu bëgg a Dakar jàppale Dakar yi def ko te bu ñu ko defee je crois que c'était la meilleure stratégie politique yàlla sax ñu si ndax ndax ñëpp mais yéen la famille ñu ngeen ak yeneen comité diaspora yi yéen a gagné Oumar Sarr biir Dakar si ce n'était pas vous Oumar Sarr kenn du ko gagné Dakar fii ak 50 ans te am na fu ñu jëm ah. affaire yi changé na am na fu ñu jëm te suñu liggéeyu dal fi toogaat ah. man nag du ma wax ndax dama gëm ni dama war xeet bu jëlee def mais tamit il faut que ñu waxante dëgg il faut que ñu waxante dëgg am na fu ñu jëm il faut que ñu liggéey bu jëlee def suñu fu liggéey bu ko jëlee léegi nag Matar dëgg la xaar xaar xaar xaar ñu ngi koy xaar ah bi nag commencé na bëri ndax ñoo ngi koy xaar ba am na ñi nga xam ne sax daw nañu ne candidat yi waaw pour di njëkkante mais fii njëkkante bu def am fii moom comme na xale yi wax rek bu ñu defi naa nee ñeer kooku moom nag day koy gis sa loxo bu ñu defi naa nee ñeer man li ma gëm da ngay liggéey da ngay ñëw man tey ñoom ñooy di njëkkante bu ñu ma ñëwoon bu ñu bu ñu pare woon rek pour taxaw daf li ma taxawee ma toog seen yoon wax ma nag ñu taxawee ko ndax xaw ma lu ñuy def mais man sama relation bi ma am ak nit ñi waar waar yi nekkuñu si dynamique boobu noonu am nañu si yenn seen yeneen relation yu ñuy def xëy na man ñoom yooyu la ñuy xam xëy na yooyu la ñuy dégg wóolu sa bopp d' accord exemple loolu dañ koy wax ni candidat mais jàppale ni Garo man élection yi ñu jëm maa ngi si ginnaaw Maxtaar mais tout temps nekk ginnaaw Maxtaar li ma def nii ku jëm élection li ma créé tey jii yéenay dem élection man yéen laa yéenay dem voté si tur yi te yéen nee nañu Aziz yéen àndal Aziz nee na Maxtaar la àndal kon donc loolu dafay neex ba pare yéen tamit nee na Maxtaar yéen àndal kon donc ñun amuñu problème amuñu problème amuñu problème keneen mii ba fa li xew ba di dem dagal nag mooy indi problème ndax xaalis léegi am na benn xaalis dañu bàyyi pour saaga Aziz sax 1 million lay fay man ne pour saaga Aziz dañu saaga Aziz ñu may def 1 million ndax man bëgg naa na jël na ko man fekkee tey na ñëpp suñu ko wala saa leen sax suuf si boo leen jënd ay rajo scanner ak yooyu ak rajo rajo mais non si man damay wax waxu politique laa leen wax ni ma tegee Makhtar noonu laa ji noonu laay noonu laa def même Oumar Sarr en état opposition parce que si doon parce que dafa daan ñëwal ay nit kon ne su Oumar Sarr bu jàppale leen parce que moo fi nekk taxaw moo amul position boobu pour jàppale leen pas mal de personnes man ne tamit Oumar Sarr moo fi nekk lu leen mais man combat bi ngay combat boobu xëy na attan naa ko mën naa ko ci mais dem nañ ay boobu yu bëri maa ngi bëri nañ dem nañ mais nag ñun comme ni ñu waxee ci politique fi am damay kontaan sa bàjj ma dégg sama tonton Sadio bi vraiment dama si kontaan trop trop trop trop trop trop tey man député laa fi jëlee fii léegi te incha allah yal nañu si yàlla defal la yal nañu yàlla defal ndam si bis bi ndax nekk na bisu mbërte ndax nekk na bisu bisu bisu bisu mbokk bisu dox mbokk ba nga xam ne tey dama kontaan su ma gisee ay umay mbërte yi ay di waxtaan c'est-à-dire xale ba léegi ñooy ànd noonu la ñuy waxee ñëwaat dajeeg des sages comme Paa Gourou comme Bongo comme sama mère rafet bi ak sama jigéen rafet bi vraiment dama kontaan si. en tout cas maa ngi wax maa ngi wax tuuti rek euh, ndax am na loo xam ne moom laa doon jëndee comme ngeen mën ko mën am na 23 personnes yu yokkuwaat si comité bi. yu remercié mooy Louga ak Bongo naa seen liggéey 23 yooyu daaw ñoom fay na dagal ñoom seen décidé ñu war doon dagal man wax naa ne jot naa ne sama table Macky Sall mooy yor bëtëram ndax moom mooy jël ñu ubbi na. ufi euh, révision yi kon bu ko ubbee jàpp na dans la semaine bi suivie daañu def suñu benn weekend comité waat jot famille bii ngeen ak et autres ñu dem Dakar def suñu quarante huit ndax foofu ngeen dëkk seen adresse yéen a ko changé woon ngeen xëy na matin ñu wax naan dañ mairie ñu jot na suñu résidence ñu dund suñu biir ndax daf na koy jot ndax foofu ngeen dëkk loolu moom si négocier ak Oumar Sall su ma ko joxul sax dama koy ñëw fokk ci foofu noonu ndax foofu yéen dëkk loolu day leer ndax ni problème résidence dafa am problème ndax day dem gën a jub mën a dem ñu ne ko du koofi ndax adresse dafa changé adresse dafa changé léegi nag loolu du dara amul problème on va faire benn 48 heures wax naa ko wax naa ko góor bëgg naa ñu ànd ak yëpp ñu dem Dakar dafa 48 heures dem bindu mooy nag les les 23 personnes là bu ñu bindoo bu ñu bindoo après ñu def la même même chose ah dafa yenn foofu après y' a beaucoup de parents yu nekk à côté ñu def porte à porte xale yu jigéen ñi sax même béykat sama sama xaye sama sama sama jom bu rafet bi ñu posé woon sax histoire dans dans sa dans la vie. boo ko rafet non amul problème daal ko def histoire dans sa bay ñu dem ndax non dama bëgg dama bëgg ñu waxtaan ndax Dagana bi Dagana dafa Dagana dafa nekk jiw jiw ren am nañu botal bu rafet bu nekk foofu dafa ne ñu ngi gis rek man ba léegi ay gis rek laa am comme xam nga mosu gën fa dugg. waaye ñu ànd ak suñu bàyyi suñu jaay gis mais mais mais mais troisième âge France ñun ñooy ñëw foofu tëdd foofu ndax seen maam yi yoonu tëdd foofu di koor gi nekk si taw piscine bi wàcc ngeen seen di wér ndax da ngay dund foofu amuñu ko Europe amuñu Amérique ndax seen dekk dafa sore foofu man doo doo mos hôtel mais damay am rapport hôtel yi di xam lu xew di ko ngam fu duggee sax parfois naa xam damay bàyyi <laughs> mais damay waxtaan rek bu ñuy ndax soo gisee bajan muy bëgg tey 48 heures yooyu y a une partie de la famille boo xam ne daañu ko dem visité ko mag ñi guddi bi xale yi ñoo ko moom suñu bëggee soirée ñu dem soirée ñu guddi bi suñu soirée. xanaa mag ñee xale waa jeex léegi nag su ko su ko gis rek bi ma waxoon dinaa ko def d'abord dinaa ko def su comité bi parce que bu mu marqué dafa leen ma dara comme ni mu bëree wax tey jii kii bi wax na témoignage bu rafet tey pare wane ne su fekkee yéen da ngeen si mën faale ba nga xam ne tey fii kenn jot fi dara fii kenn jot fi li nga mën def fii kenn mënu fi jënd kenn kenn mënu fii nit ñi kenn mënu kenn fii addina bi changé léegi addina da ngay génn sax gis ko am téléphone doog sax xam balaa caakoon nga nga gis ci bëgg nga am moo ma gënoon njëriñ kon donc ñu rafetal ànd bi rek ñun ñëpp ñu ànd nekk benn xam ne wax naa ne nekkatul politique xëy ma transition moo ko créé woon ñu ànd seen moom yàlla du ko ci doole ñu def mais léegi mun ko téel suñu bopp parce que y' a pas mal de cadre yu nekk fii tey keroog boo demee Ibrahima nekk un cadre à l' échelle du liggéey mais demee il peut être directeur de la jour c' est mu ngi nga nekk kii c' est un parent na wax dinaa lañ ko présenté tey ay tey ñooñu tey mu ngi nekk si boîte agence bi gën mag demee il peut il peut être directeur kii moom suñu wàllu pêche yi di jàppale xale yi ñuy dem ay France Europe kii mooy SONES dans deux ans mu nekk directeur SONES. wala wala yëpp comme ni ma ko waxee c'est-à-dire ni ñu fexe nag ba suba kii bu nekkee directeur loolaay lu lu taxaw ko jàppale ni ñu fexe ba suba Ibrahima Diagne boobu nekk nañu fekk man bi ñu fekk laa yor dafa nekk wàllu wàllu jàng jaar si école yu xare tey jii mën naa ne bokk na si ingénieurs yi nga xam ni ay xale nañu nekk azur azur yi ñëpp xam nañ ko mooy wàllu dënn kon su si amee benn xale bi su liggéey bokk si famille bi kooku sama fierté la su bu nekkee directeur Azur kooku dañu dugg ci kontaan kon donc loolu laay woo waala waala ñu am na fulla ba suba Youssouf Fall bu nekkee directeur SONES ñu ànd jàpp nag fekkee dëgg mais nag na am ngor nit dellu si man ñëw ñi ñëw wax ak nit man loolu foofu laa ñu waxee di waxaat merci la famille bi laay wax wax naa ci France nee naa dama kontaan merci laay wax merci bi avec un parce que jigéen ñi sol nañu vraiment sol yi rafet na trop euh, góor gi sama sage bi wax na nga xam ne loolu lay sage bi jëriñ si commune bi ndax laay sage bi ngay wax toujours dalaay bi wax sage bu ñu ko waxee si commune bi mooy un régulateur boo demee bàyyi na commune bu ñu créé am na sage très rare ngay gis commune ba damay mën beneen paa bu nekk benn koñ dugal ko foofu pour problème bu amee mu mën taxawee li nga taxawee vraiment moom kàddu yi gën ñaata nga ñàkk a dégg muy kàddu diine muy kàddu waaw léegi bon français vraiment macha allah man damay wax ne di waxaat vive le comité mooy maa ngi leen di maa ngi leen di maa ngi leen di maa ngi leen di maa ngi leen di yëkkatiwaat di leen yëkkati di yëkkatiwaat famille bi si kanam ñëpp di wax coordination di Dakar lii tey waa Guédiawaye bëggoon nañ ñëw de maa ngi fi kenn waa Pikine bi bëggoon ñëw mën na fi kenn waa Kër Massar bëgg a ñëw mën na fi kenn benn comité laay seet bàyyi na nga seet sax benn comité on a 40 comités pour moo bëgg ko waxee parce que ça fait 75 mais dañ ko réunir ndax rationalisation la ñu wax tey am na comité yoo xam ne am nañu 30 ñoom 30 ma dajale leen def leen benn amoon nañu 75 mais léegi 40 la mën na dem sax ba 50 ans bu ñu liggéeyaatee tey 50 yi bu duggee Dakar avec un peu de travail bi ñuy def Dakar on va gagner ces élections te loolu mënu ma am kenn ku dul ci yéen ñu ne première coordination bi duñ jël man socialiste la question yi nekk yi parti socialiste bi laa dëgg Sénégal yëpp ñu jël def secrétariat national def départ première coordination Dakar deuxième coordination Guédiawaye ak Pikine def troisième coordination Kër Massar Mbaye yeneen nag quatrième coordination ñu def ko Thiès Kayar yëpp dëkk dëkkaan yëpp foofu yëpp ay quatrième coordination ñu jël cinquième coordination def ko Mauritanie ak Dagana Mauritanie ndax man village yëpp dafa am ay nit nga xam ne ni leen di joxee bis ñoom noonu laay waxee waa Dagana mu jàll ñu votal ndax ay waalo ay cousin ñoo fa dëkk waa famille Kalla yi nekk foofu yëpp ñu jógee dimanche ñoom foofu ñoo nekk mooy kër Abdou Bari Kane boobu ngay dégg daal kon donc ñun liggéey nañ man nekk nañu fi di wut minute wax naa Youssou Fall dégg man j'ai fait un travail bi nga xam ne Makhtar dafa toogal kër xëy na yónni nañu mais suñu amuloon volonté politique bëgg a dagal on va pas réussir ça volonté moo tax ñu réussir volonté moo tax ñu réussir bi ñu ko am na yu bëri yu fi dugg yeneen affaire bu ñu commencé wax am mais garaaw politique moo demee noonu ndax tendance depuis Senghor ak Lamine Gueye da nga nag ñii dañu àndoon Senghor ñii àndoon Lamine Gueye loolu tey moo amaat biir affaire ku bëgg a ànd ak Aziz nañu ànd ak Aziz ku bëgg a ànd ak Makhtar nga ànd ak Makhtar ku bëgg a ànd ak Cheikh ku bëgg a ànd ak képp ku nga xam ne rek nee na bëgg na dagan comme la xale bi mais man ma ne tant que dawmaatuma si nit ñi waxaat leen lan laa bëgg du ma gis dëgg danaa demaat fépp fu mu mënul ma woo téléphone noonu laa ko doxalee si laa la wooy téléphone ma ne jàppale ma yénn fu mu mënul tam nga demal ma fa war nga wooteel ma laajteel ma ndax nit ñi mën nañ la bàyyi te doo ko yëg wala ñu dem si sóob wala ñu dem feneen c'est normal addina mooy changé loolu laa sant comité yëpp sama jigéen de moom mun naa ceebu ceebu jógee nga fi indi woon tey indiwu fiche mere naa ndax deux mois ñu ko jot fiche mënoo wax tey ay fii d' o nga loolu politique ay organisation lu ñu respecté jot nit ñi suñu waxee ni li ñuy def loolu la ñuy def Mbaye Ndiaye moo représenté comité jëppal tey mu ngi Dagana Dagana la jógee ñëw déggee monsieur Ba moo jógee laaj jaane jox ko parole ndax moom mooy orateur mu wax déggee lu wax si jëppal jëppal bis ma fay jóg Sacré Cœur bis ma par do ay yéen a fa nekk yéen tey yéen a ngi indi fi mais Dakar ngeen bokk boo ko leen génne génn wax yéen Dakar ngeen bokk ñu am fi ak Alisane bi nga xam ne mooy coordonné étudiant yi Bara Fall bii mooy mooy moo mooy mooy mooy seen mooy coordonné si kaw tey chaque élection dañuy dugal cinq bus ou bien six bus à Dakar ànd seeg malade yàgg ñu sama sœur doom jee feebar di ko gërëmaale moom vraiment bu baax la tey si nga moo wax si turam ñun Dakar bu ñu dajee koore organisé dafa at noonu Guédiawaye dafa at noonu Pikine rek daf ko Kër Massar jeex na je crois que loolu moo tax waral mais ñii dafa ne woon sax duñ ñëw mais parce que ñun ak yéen ñun ak yéen ñoo bokk coordination bi ñu invité leen pour wax leen liggéey bi ñu ngi demee loolu kasal jàppaleen ni maa ngi gërëm tamit waa première coordination bëgguma lim li naa tur yëpp kenn daal moo sama muy Papa Ndiaye ñoom mooy suñu mbàkku daal sa waa Saare Laam yooyu dëkk avant ngay avant euh, waaw non non soo génnee waaw waxuma biir Dakar seen dëkk waa la quoi Saare Laam waa Saare Laam ndax suñu ay bokk lañu ma dama seeti leen mu ni nii fa tey du ma bëgg a jàpp ma tas ma jëlee ñun ñëpp yóbbu leen Dakar ñoom ñoo nekk ginnaaw stade tey xëy na joxe guñ la xëy na dana wax Pape Soumaré bi nga xam ne mooy yor wàllu istik bi wax gàncax ñooñu ñoo nekk Dakar te jàpp naa ni kenn bougé gu fi kenn dama gu fi ñun ñoo fi nekkoon 2000 boobu weer bi ñu commencé liggéey bi dégg te yéen ñëpp tënkuwaat yéen si loolu yéen doxaat pour ñu demaat ñu gañewaat élection yi kon donc loolu man lay tëjee di wax vive nag Mouhamadou Makhtar Cissé ndax wax naa vive mais MC en français mooy maa ngi fekk sama na leer ma leer daf ñun ay góor lañu ñun du ñu du ñu du war nit du ñu yàqal nit du ñu def du ñu tooñ nit mais nag du ñu tooñ nag daañu fay loolu rek mooy suñu problème loolu rek mooy suñu problème di wax nag vive Abdou Aziz Diop comme lu gars yi di wax di wax nag vive le Waalo di wax vive Dagana ndax Dagana bi dafa rëy il faut que ñu ñu vive Dagana di wax nag vive son excellence Macky Sall mais nag am na lañ xam ne moo ëpp doole Macky Sall muy muy alhamdulilah man moom laa gëm république bi xëy na moo fi nekk 1960 ci moom la ñu tënk tënk kii Sénégal yi muy juge des droits civiques et politiques république bi mooy néew mooy ëpp doole moo nekk si kaw man sama entité tout programme moom laa jiital ndax tey jii kuy kuy am fierté rek vert jaune rouge bi nga war a teg sa lii moo ëpp doole Macky Sall ëpp doole Senghor ëpp doole ñëpp kon donc lii nag bu ko defee tey ñun gëm nañu kon bëgg nañu suñu réew gëm nañu dagan gëm nañu bëgg nañu waar te lii la yàlla wax bëgg euh, bëgg sa dëkk si jàmm yàlla bokk jàmm ñu alxuraan bu bëri mais xam nañu ku bëgg sa dëkk si jàmm yàlla bokk mais daal gëm naa ni kontaan naa trop si yéen vraiment kontaan naa trop di fekkal te xam naa ni il faut ma gisaat sax dans ma ndax man damay liggéey man kuy liggéey laa doon man koo ma ko liggéey ku liggéey damay damay wis te dama bëgg yaatal dama bëgg jiital mission baax man man bala nga may gañe rek soo ma jiitalee suñu baax ndax dama gis ne tey léegi nga jiital suñu baax ndax da yu am yu am yu am yu am place fekk fi yu taxaw sax seen ay nokos vraiment vraiment vraiment man tey dafa kontaan quoi man aw ma lu may wax vraiment kontaan naa mais nag bi yëpp mooy lan mooy golo dégg naa wax Mansour dégg naa wax Ibba dégg naa wax ba sa wax démb dafa traw mais asile war nañu nag xam ne tey mënuñu ko jékki kon nag jàpp yéen nit man loolu dinaa leen ko delloo man dagana laa gëm ñi koy laaj nii foofu di wax dagana muñ bëgg ñu Omar Sarr dafa yar foofu gënuma ko te dagana kon donc ñun ñëpp lu bëgg bëgg naa dinaa ko jëfee dinaa ko doxee nekk si derrière ma xaw ma tax si suñu ba bu muy ne ko ko rek comme dañ ko commencé woon si bismillah ñu àndal ci alhamdulilahi taala euh, di gërëm ñëpp alhamdulilahi rabbil alamin tant ba xam ne am na bu ma commencé wante am fu mu mais boobu leen na mu sotti si moom la de bis kenn alhamdulilahi rabbil alamin ni mu ko defalee yombalal na ko lii yal na ko yàlla yokk ni mu ko yombalal ba lépp la nga xam ne incha allah moom lu mu bëgg mu te yàlla am na ko mën na ko sañ na ko def kon nag ñu defaatee salaatul faatiha ñu def sant dëgg dëgg sant nag alhamdulilah ak hamdi xam ne ala kulli taal waaw incha allah fàtte fàtte fàtte اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم عليك يسلم يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا صلى الله عليه وعلى اله وسلم باقي لا اله الا الله جل الجبار لا اله الا الله وهي القحار لا اله الا الله كريم السطر لا اله الا الله كريم المنتهى لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحو مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد ربا وشاهدا أحدا وصمدا مؤمنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد ربا وشاهدا أحدا ونحن موحدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن الصابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك توكل وإليك توكل يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام اليوم وسلام الجمع وسلام السجود وسلام الكراهة وسلام السجود وسلام الجامع يا رب المؤمنين وسلام في الدنيا والآخرة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب العالمين تقبل Thank you.